gudd fan rek. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di ñaan yàlla gudd fan. allahumma amiin. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. maanaam fasadoo yi ngay waxtaane. lu jar sànq la. ndax fasadoo yi. ku ci nekk sëñ Tuubaa moo ko ci def. waaw. ndax moo ne fasadoo yi. gën na lépp ba mu def alxuraan. naa leen sant de émission bu baax. jërëjëf Fane. te yow mi ngi sunu kaw ba nga yàgg ci lool te wër. amiin ma jël xas ba li nga fekk nga mënal macha allah. bëgg naa daal parce que li nga fekk xam na ni. bu xamul dara dara sax dañ fi mën di jaay. parce que daal moom comme maanaam jàpp wala jàpp lu baax rek. bàyyi ma ne moom moom mooy jàppoo dara. jàpp ko gën mooy jàpp lu bopp lu baax. waaw jàpp ko moom jàpp mooy jàppoo dara. moom nit ñi dama taxaw loolu baax a baax. parce que suñu doyen lépp lu moom dañ ko fekk yoonam ko fi mu ko fekk di bokk kuy naa góor bi. kontaan nañ lool dama taxaw loolu lool xëppante jooju yàlla baax baax baax te ñu jooju xam naa daal ku ñu moom doy na war daal ci war gàll moom nee na nee na ko ñu leen ñaanal suñu dafa leen gërëm suñu tubaab pour ñu suñu toog lool ñoo leen di tuwaalu bu baax a baax a baax rajo yëpp ñu yëlloo waram bi de wax dëgg yàlla naan nañ ci ko léegi bu baax a baax a baax a baax a baax barke Sëriñ Tuubaa yéen daal fu ngeen bëgg rajo bi àgg yàlla na ko rajo bi àgg waaye yàlla na ko sëriñ bi àggale fu ngeen ko bëggee waaye allahumma amiin allahumma amiin barke Sëriñ Tuubaa naan nañ bu baax a baax a baax a baax a baax waaw kay xam naa ñu ngi rafetlu liggéey bi ñaan taw bi ci am na waaye yéen a dolli ci baax a baax waaw kay jërëjëf jërëjëf siyaare jërëjëf jërëjëf jërëjëf moom daal li ma lay xamal mooy leen kooku nga ko teg rek bu ko teg kooku la kooku rek la wante li ma leer ci leer yàlla fata yi di doy nañu sëriñ man day li ma mën a wax waaw bu ma kenn nare yàq mhm. ma jàpp ci xasaay yi bi ak di siyaare ji barab ñu ko borom nak ñu ko borom nak waaw ko ñu ñaan ñu baax ñu bëri ñu ma wax jërëjëf ma wax waaw waaw waaw man moom la ko laaj. waaye li ci gën a am solo mooy li nga naan li mu wan Serigne Touba ñoom dañu ciy dégg suñu toll. li ñu mën di am rek di teew ñun suñuy waxal ci Serigne bi ak di ñu tegal ko ngir moo ñu ko gën a naa gën a ñaan ci barke comme Touba ak ñu suñu borom gën leen a jàppandal ñëpp ñu leen bëgg ci yéen lu ñëw eh, tey Touba ñu xam ci lu kawe sant suñ ko baax koy jàng di ko kawe dinañ ko am na solo de ñu ko fekk daal moom ci lu ma ko teg bu baax man boo dégg la dégg la dégg la dégg la Cheikh Oudma Ngor Diagne mooy saa waay. jërëjëf jërëjëf. borom Touba rek. borom Touba bi fépp a. fépp rek la ko wér. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ziar bu baax a baax. soxna Oumy Mbacke. waaw man. am na solo Amar. ñu ngi ziar bu baax a baax. yéen yàlla nañu ziar. di rafetlu loolu di soxla. jërëjëf jërëjëf waay. di ma xarit Amar. bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. te du yow amoo kalaas. la yàlla bor. dafal ak ay mébét. ci sa liggéey. na yàlla bur defal la ko Cheikh Maodo yow Serigne Touba bégal nga ko bég na ci yow ne li mu bëggoon dundal nga ko bii émission na yàlla bur teg ci loxoom te looy jëfit Cheikhul Xadim tee ci loxoom te sab liggéey na yàlla bur nangul la ko Cheikh Maodo yow xasida moom nga ko kon maa ngi teg na yàlla bur di fay la yow sa boole nag seexul xadim mi ñëpp naw seex Moodu yow yàggal ci ñun te dal di say auditeur yàlla bu leen dara di lor salaatu ak salaatu ak dolli teral na nekk nag ci Moustapha mi gën gënu bi aalihi wa sahbihi wal ummati ak maami leen ترم بما ذكرت للإله كما به جاء رسول الله تفيت كل ضرر يالله بسر لا إله إلا الله هب لي مرادي كما أهواه بسر لا إله إلا الله يسر لي العسر كما أهواه بسر لا إله إلا الله على النبي المصطفى يالله صل بلا إله إلا الله صلاة مغن بسلام الله بسر لا إله إلا الله إن كتابتي لدى الله أهب مما كثيرا من عبادات تحب أنقل من لوح الإله والقلم حكي بلا وسوسة ولا ظلم كتابتي قبل لدى من كفروا نفر إذا قد قد جهدوا ونفروا كتابتي قبل لدى من جهدوا قادت لعمري مننا لا تجهدوا كتابتي من لوحه والقلم ناتي تاتي بلا وسوسة أو ظلم كتابتي لي بلا أكدار في هذه هذه الدار وتلك الدار كتابتي نابت عن الكتائب لم ينهني من لا يرى بتائب كتابتي نابت عن الأعمال الصالحات لانتهت آمالي كتابتي نابت عن القتال وذهبت دري إلى أقتالي كتابتي نابت لدى الله الجميل عن العبادات وأنه لا تميل كتابتي نابت عن السلاح وأن بركات ذوي الصلاه كتابتي مشكورة عند الشكور وإنه جعلها على شكور كتابتي لدى الشكور شكرت ورفعت لأرشه وانتشرت كتابتي ذكر الإله والشكور وخير تعليم يرى جزى الشكور كتابتي ذكر وشكر وصدار الله أرشد إلامي والمدار كتابتي تبشر المختار مع الرداء من لم يزل مختار الأبرار كتابتي تبشر المشفع مغجلة مباردا ومرفعا كتابتي تبشر المشفع وإن إبليس تفوق مرفعا كتابتي بشارة في أبدي لجند رب الغالبين الأبدي كتابتي ليست تزال بشرى لمن علا فوق البرايا البشرى كتابتي قبل لدى أهل الكتاب كيوم بدر ما نهاني من عتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب ساقا لغير عداية والعتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب تبا لغير جهتي كل عتاب كتابتي قبل لدى أهل الكتاب لنذعت نور اللسان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 بلا انتهاء أجري الذي منه لغير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتابتي ردت بغير كل ثم أذايا وأتى له الزمن كتابتي قبل لدى الأمواج أعلن عن الأسكر والأفواج إلى تواليف يقود الله أسرار لا إله إلا الله إلى تواليف يقود الله أنوار لا إله إلا الله إلى تواليف يقود الله شفاء لا إله إلا الله كتابة مهجنة لكافر وفاسق ومشرك ونافر كتابة ذاهبة بالسوء لغير ذات يقوة مسيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي لين دي بو باخ باخ دي لين زيار دي لين نانو جام ديكو سات كي يين واي دي جيتل تي نيو بي زيار بي سيرين تو باخ استوديو المختار ماك خلي جنرال كل مريض ديكو نانال مومن يالا سي غورم سبحانه وتعالى ماك فان غود لولو اندك مير غيرام نك نونو سيرين تي خلي جنرال دي باي فان نيكو يانو باخ باخ سبحانه وتعالى ماك فان غود لولو عند تمر بيرم كتابتي سبقت المعادية وباء نادما ولم يعاديا كتابتي سارت كسعي السابقين الأولين وترد الآبقين كتابتي للأرش والكرسي والله ما ألمه القدسي سنبكم تعالى بمولي كريم يفتين عنا تجين تتان إميسيون أهل الخسيدة كم نغن كباه وعمي الله وبيت 20 30 22 ni fasiyene di and ak yeen di soñi wante way tamit di begalante ci xasside ci ahmad bamba khadim rasoul كتابتي رقي أدنها ذو الأرش وقادها إلي رب الفرش كتابتي تدور تحت الأرش بين الكرام عابدي ذي الفرش وكانت بيتي دال العبرام خم خم يوخم نسين خم جمتي والو خسائد سي أحمد بمبا خادم رسولي نجمي تي لير باخبا بوك تالي بيغا خم تنين نيو الخسائد نجمي من خم أنا والي لنكي من جار كتابتي للأرش والكرسي يرفوها الرافع بالقدسي كتابتي لدى إله الله ذبا بغير فذي الملاهي. احمد بن محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الميلاد والسلام واللسان داعية لزل جمال بهسان يعني يا لسن برم سبحانه وتعالى فوق خسائر تهوى تهوى سيرين دي ولي دي دي دي motax tax émission ahlu qasida di dalal ay borom xam-xam yo xamne ne xam xam ma ci na jëm ci walu qasida yi ngir ni ci leer bu baax baax ngir ñun ñi nga xamantene ño ñoo sóobu ci qasida di ñu gëna xam ana wan yoon lañ ci mëna jaar ba ngëneel yi nga xamantene ne li Cheikh Ahmad Bamba mo Rasul wax na ko ci qasida di ñu mën ko ci am kitabati misla suyufin wa rima ridan liman li qaada juudan bi sama kitabati min alkarimi karamu wa qaada li fiha ulawul akramu kitabati jahalta akbara rida ladayka qad waqaytani غير الرداء ده سيرين سيرين تبا شي احمد دا خادم الرسول دا فوني كتابتي جعلت اكبر رداء لديك خد وخيتني غير رداء غير رداء وقت خم لك فوق نسني برم سبحانه وتعالى دي فن نكو خسائدي مي نغرم لو جينا ماج بي موم ياكرنا لولو داي وني ما جاي خسائدي واي تي جينا كيغا خمانتني موم لاي فاسيني اندال وقتان بي دي سيرين الين ديوب noonu lañ ko baaxoo defee saa su nekk rek di leen andil ay laaj yoo xamante ni dafa jëm ci xasaayid Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ngir mbokk taalibe nga xamante ni ñooy teewlu tey durus ñu mën di jaar ci bu mu jokkoo bi di tontu laaj yi tey nag laaj yi nga xamante ni moom la ñu leen andil laaj bu njëkk bi moo di yaa rabbi suxli jumlatal mataali bi bilaa hisaabin bi nabi ibni aali bi loolu mooy laaj bu njëkk bi ngir képp koo xamante ni xam nga ci ban xasida lañ nekk ginnaaw bi ñu teewloo Sëriñ Aliou Diop ci waxtaan bi incha allah dinañ leen ubbil bu mu jokkoo bi ñaareelu laaj moo di xadamtu baatilan bi xaqin fa zaxaq wali ilaahi kaf sax yi ni daxa loolu mooy ñaareelu laaj bi laaj bu njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi ibni xaalibi loolu mooy laaj bu njëkk bi ñaareelu laaj moo di xadamtu baatilan bi xaqin fasaxax wali ilaahi kax sa sax yi daxax ngir képp koo xamante ni xam nga ci yan xasaayit lañ nekk incha allah ginnaaw bu ñu teewloo Serigne Aline Diop ci waxtaanu xasida bi dinañ leen ubbil buumu jokko bi ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 كنز لديه أبدا لي وبها فهل خيار أبدا كتابتي سوت مسافة فتصلوا أني وسان لي أن در الملوم كتابك له أحب من كثيرا من المنى مزداد لي در النذير كتابتي من لوه ربي تنقلوا كنا بوكا دفعك ندادي عندك سيرين ألين جوب تيولو وقتان بيغا خمنتني مملا سيرين ألين جوب دف جميعك كي خاصة إدسي أحمد بام خادم ورسوليكم لما كوحي تيجينا بوحسان بجاه إن شاء الله ربي دانيو الأبل لأن دانيو الأبل بومو جوكو بي نيريا نيغا خمنتني ينا تيولو تيدرس نيان منا جاكي بومو joko bi tontu suñu ay laaj waaye tamit tey jii nag ki nga xamante ne moo di soxna jàng ci sa jaalibatul maraxib moo jaayante waat ñaari xasaay yooyu nga xamante ne moo di ak xasida gi di wakaana xaqan alayna nasrul muminin nga képp koo xamante ni rek tontu nga laaj nga mën am xasida googu nga xamante ne moo di alayna nasrul muminin ak jaalibatul marahib kon mbokk yi gaaw leen a gaaw ñaaru laaj bi laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi suxli jumlatal bila xisaabin bina libni xaalibi hadamtu baatilan bi xaqin kazaxaq wali ilahi kaxsa saqihi daax loolu mooy ñaareelu laaj bi ngir képp koo xamante ne xam nga ci yan xasida lañ nekk rek incha allah rabbi bu ñu ubbee bu mu jokko bi di ngeen mën a jaar ci ligne bi kon bu ko defee rek ñu daal di ànd ak Serigne Aline Diop daal di teewlu waxtaan bi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moom la ñu lislaam tànnal muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di leen ziyaara te di leen ndokkeel jataay bu tedd bi nga xam ne sunu borom moo nu ko taw feexale ci taw feexi Cheikh Al Khadim muy bis boo xam ne dañ koo taxawal tudde ko bisu xasida yandu fi di jàng alquran al karim ak xasaayitu Cheikh Al Khadim ma ne loolu ci taw feexi sëriñ bi la bokk ñoo ngi leen ci ndokkeel ndax Cheikh Mamadou Fadal daana wax ne Sëriñ tubaa dafa gore ba ku ko jox sa bopp mu def la ni boppam waaye sudul woon ngoreem googee ku amul daraja yi doon doomi Sëriñ tubaa doo am daraja yi jàng doon doomi Sëriñ Tuubaa yomb ñëpp mënu na kawe koo xam ne su ko fa Sëriñ Tuubaa bàyyi woon ku dul doomi Sëriñ tubaa doo am daraja jàng ko doomi Sëriñ Tuubaa rek ñooy jàng xasida yi duñ ci ñaanal waaye sëriñ Tuubaa ci mbaaxam ci taw feexam la wàcc xasida yi bañ kon noo ngi leen ciy ndokkeel mi nga xam ne si moom la lépp bàyyi ko moo tekkal sëriñ bi boppam ca waru ko dalani allahu ala llaahi bi la taqarrurin la wax ku yàlla am na lu la nëbb waaye sëriñ Tuubaa yàlla nëbb ko daraam araytani sirra rasulallahi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la rawee ñëpp sax suñ borom nee na ko mi ngi nii suñ tubaab teg na ci kon nañu xam ki ñu am mooy kan xam lim ñu indi mooy lan ba mën koo teg barab bi mu war a tegu man cee jariñu njariñ lim ñu ci benn jot su ko defee nañu xam ki ñu am mooy kan muy Cheikh Al Khadim xam lim ñu indil mooy lan mooy xasida yi xasida yi Sëriñ Tuubaa daana wax ne képp ku xamul man mi bind xasida yi maay kan xamuloo sallallahu alayhi wa sallam mi tax ma bind yi xasida yi mooy kan munoo xam sama dong yi koy jàng ñooy ñooy ñan ma ne xoolal sëñ Tuubaa fi ñu teg am na ci njaareem benn naar bu ma salaat sëñ Tuubaa ne ko damaa bëgg nga wax ma ñan ñooy ahlulaahi ahlulaahi nag mooy ñi gën a jege yàlla ci ñoñ yàlla ñi sëñ Tuubaa ne ko ana may fayee su ma la ko waxee mu ne ko Mbàkke de yow sa borom mi la mën a fay fay na la ba nopp kenn mënu laa fay waaye li ma la mën a fay de mooy boo boo ma leen xamalee ni ma gëme yàlla dinaa ko gëme ñooñi ni ma warmaale yàlla dinaa leen ko warmaale sëñ Tuubaa ne ko foo doxati ba fekk kuy jàng sama xasida yi kooku ci ahlulaahi la bokk kon yooyu li am ni mu toll kon day yell ci ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla taw si xasida yi léegi-léegi ñu taxu def taxaw def ci ab taxaw seetlu xam li ñu yor mooy lan xam ki ñu ko jox mooy kan xam nan lañ ci war a jëfandikoo ba man cee jariñ léegi rek sama xel mi ngi nekk ci ne dana baax ci buñ toggatee ci bisimel nii ñuy soññante ci ñuy teewlu xasida yi ndax Sëriñ Tuubaa lim diggee ci kuy dégg xasaa yi kuy déglu xasida dafa rëy ndax sooy déglu xasida su say bàkkaar tolal ne jabatul jabalul óot rëy ci montagne boo xam ne daanaka daa ci biir suñ tubaa nee na boo toogee déglu xasida yi suñ borom dana la ko jéggal ba mu raaf ba mel ni fu dara mu sene boo wéyee ci déglu xasida yi ko juural ay tiyaaba ba mu toll na mu tolloon ci ci déglu gi rek xasida dafa bari ay melo am na xasida gu sëñ tubaa bind wax ne képp ku teg sa bët sa yaram araam na safara bi mu ko waxee ci njaareem mag ñi dañ koo bindoon ci ay këyit takk ko ci ay bant di wër marché di ko wone yéen ñëpp xam ngeen ko waaye bindaat na xasida wax ne képp ku ko dégg ci sab nopp sa yaram araam na sa waram xasida yooyee tey si romancier ci la bokk sëñ Tuubaa nee na képp ku ko déglu ba mu jeex sa yaram araam na sa damay wax nag ne ay olof lañu nañuy déglu baati olof yi sëriñ Tuubaa waxul ne ku ko dégg ndax léeg-léeg ñu def ko ci rajo rajo Sénégal ba Lampal ba Touba Fall di ko dégg yéefar yi sax dañ koy dégg waaye sëñ Tuubaa ku ko déglu la wax déglu nag loolu yitteel rek léeg-léeg ngay wax nit mu di mu di la xool ba nga noppi mun la dégg ba li nga doon wax daf kaa dégluwul moom mi ngi doon dégg kàddu yi waaye déglu gi moo am sëriñ nit nag mënta déglu lu mu teewluwul kon nañuy teewlu xasida yi njariñ gi ci teewlu gi la nekk waaye da ngay gis ku jóge fu sori ñëw yend ci naaj bi ak tàngaay bi sukk ba bu fi jógee aw yaramam di métti te daanaka du fi jëriñ njariñ la toll na ko war a jëlee lu ko waral mooy ñàkk a teewlu xasida yi ndax dañuy jàng xasida buy waxtaan dina mu dugg ci te am na xeetu lor yu nekk ci wax ci biir xasida Sëriñ Tuubaa nee na man rek maa ci man dara te duma ko ci jéem te loolu su mu ko doon wax ku ko jagal suñuy jàngat xasida yi ngeen di ci bor ah, borxal ay wax def na leen mos a borxal fu leen neexul ci duma ci man dara mën na ci dara da ko ciy jéemut waaye Sëriñ Tuubaa lu mënul dara amut su ko defee nag suñ tasee fee ci bis ci mel nii nañuy teewlu xasida yi di ko déglu ndax nit mën naa jële ci déglu xasida lu mënta jële ci jàng xasida su fekkee na xam nga sëñ Tuubaa koy warmaal ak lay warmaal xasida yi war a jiitu kon nañu xam xasida yi ñu am mooy lan xoolal li ma tàmbale woon xasida yi sëñ Tuubaa yi nuroo la xasida xam nga wax na ko sax ci ne xasaayid yi faaxat xasaayidal karam gaa yu baax yi cedd yooyee xasida yi ñu doon liggéey sama xasida yi kawe na leen wax leen ma kenn ku leen mos a dégg mu bind loo xam ne ab jaam jàpp na ca di ko jëfandikoo ba yegg ci yàlla am ngërëmam di dafa ko dindi ku dul señtu Tuubaa te señtu Tuubaa waxul xasidaam yi benn bayitam bu ab taalibe jàpp te sellal ko da nga yegg ci yàlla ëpp na tax benn bayit benn araf la wax benn araf la wax yaquudu xattiyal murid la wax benn benn dundum bu ne day jàpp ab murit yëpp yóbbu ko ba ci lillahi lillaahi xaadiral murit yóbbu ko ba ci yàlla mi nga xam mo aji dindi ku dul señtu Tuubaa rek lenn nga am ci yàlla ñu bari ump la waaye sëñ tubaa la yàlla may ci boppam léppam daje ci moom sëñ tubaa nee na suñ borom lépp loo xam ne moomoon na sa ca muy jariñ bindee fi sëñ tubaa nee na yàlla doy naa ko ci loolu ba yàlla bay may ma ko moomal na ma loolu moom moom ko malaktani tamlika man laa yasalu an fi ali nimal karimal mawilul wax nee na lépp loo xam ne yàllaa ko moomoon yàlla mi nga xam ne kenn du ko laaj bu tax nga def nangam nee na lépp lu moomoon far dama ko moomale kon lépp daje ci loxol sëñ Tuubaa ci mag ñi am na ko doon jàng ak xasida ba yegg ci benn bay di ko baamu di ko baamu sëñ bi di ko bëgg ko di ma nga xanaa foofu daa jar defaraat ma ne ko ah mel koo xët wax na ne amal na sëñ caarafal ngërëm loo xam ne fu mu gisee lu bokk jox ko addiya ndax caarafal da koo xët na ko Mbàkke moom mi moo jar defaraat nee na keroog la ma sëñ Tuubaa defaraat moo waral fu mu gis doomi caarafal wala si tam joxaat addiya kon li mu bind rek nañ ko bàyyi noonu sëñ Tuubaa nu mu def dal ndax sëriñ bi la mu xam dafa weesu lii weesu yii weesu ñii kooku nag fa mu tudd rek foofa la su ko defee nag loolu day mat a xam nañu xam ne sëñ Tuubaa li ñuy jëriñ ñun taalibe yi ñu ngi ci xasaay tamit yi dama koy faral di wax saa su ne ab liir mënta jëriñoo lu weesu weenu yaayam sëriñ Tuubaa mooy suñu ndey xasida yi mooy weenam ko la jox wërd bañal lu la waaye mën a jox bañal dalay tardel li ñu jariñ ñun ci xasida yi nañuy jàng xasida yi ci di ko sell ma ne bu la kenn duufalal nooru daare ni ba tax nga woyofal ci lii bi bu la kenn duufalal jaalifatal maraqib ba tax nga woyofal soxbatal mutabbir ayn bu la kenn duufalal mafatir bisri ba tax nga woyofal matlabu sifaay xasida gi sëñ tubaa njëkk bind ak gi sëñ tubaa mujj bind ñoo yam su fekkee ne mënoo waat ne Cheikh Mouhamadul Mourtada Cheikh Mouhamadul Mourtada ku gën bul waat ne genn xasida moo gën nga ca def sëñ Tuba lépp ma ci amul deuxième catégorie sëriñ Tuba amul deuxième catégorie lépp ma baax mbooloo mii ñu toog ak mbooloo mu mel nii foofu dem boo ne ku sindi di defar fukk yëkkati seen loxo te sindi bi kenn xamul xasida googu jiitu te ba tey kenn weesoogu ko Cheikh Saliou man ci góor ñi dana daan ñaanal naan wax tax la naa kon xasiday sëñ Tuubaa yi yëpp a yem yëpp a man lépp ni doomi sëñ Tuubaa yi mel nga xam ne lool natt ci Cheikh Mamadou Moustapha boo ñëwee Cheikh Mamadou Moustapha fekk ko ci lool nag natt ci soxna Fatou Dia boo ñëwee soxna May fekk ko ci noonu la xasiday sëñ Tuubaa yi mel maanaam xasida yi xam ne ak jaamu yàlla la dafa wax ne xasaaxidi taabudu rabbiya sakuur lu indaha tuxaddimu abduhu sakuur dafa wax ne xasida bu ma bind keroog bu ma ci noppee xasida bi keroog la yàlla te lu mu jaamu suñu borom nangu ko ba bis penc keroog keroog di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te lu mu ñu ne ko ana jaamu yooyu ak liggéey boobu muy liggéeyal yonent bi mu ñeel mu ne ko ko saa boo jëndee ab nóor daare bi nóor daare li muy jaamu yàlla keroog ko jëndee ba keroog ñu ñuy àtte lu mu jaamooti yàlla ñu def ko sa compte lu mu liggéey leen ñu def ko sa compte yaa xam yaa ngi koy jàng yaa xam jàng ko fii ak yaa ngi koy moom rek saa boo ko joxee sa moroom taalibe liggéey ba jàll ci kaw kon xasida yi li ci nekk ci ay njariñ mënuñ ko koo xam waxuma la toog di ko jàng waxuma la di ko di waaye am ko di ko fonk di ko teral képp mën naa yeggal nit ki ci yàlla lu mu bëggoon ci yàlla mu am nekk naa leen ko kor sax sañ am sëtu soxna sugaan moo na netti ne ci njaareem sëñ bi dafa am bis mu wax ne man day day def léeg-léeg nit romb ma tànk bu mu yëkkati kanu te bu ma bu ma bu ma xoolee du ma xam ko ko defar ci fere yi du ma xam sax aw turam am nee na am na bis am si koo xam ne sëñ bi ko woolu mu ñëw nee na bi mu ñëwee sëriñ bi na ko ana yow looy liggéey ci alxuraan mu ne ko ah mbàkke de alxuraan moom moom nga doy na waar gaa yi mënuma ci dara mu ne ko sama nag mu ne ko ah xasida yi moom bëgg naa leen lool waaye yàlla daf maa nattoo mu ne ko day def xasida gu ma dégg aw turam laaj mag ñi ko ko mën a bind ñu ne ma diw ma dem laaj ko lu mu koy bindee mu wax ma ko ma yalwaan ba am loola dem jox ko ko mu bindal ma xasida gi ma indi ko sama daara wutal ko barab bu rafet teg ko ko wut laaj ko lañ di ko ca def bu guddee nag ma wut sama sondeel taal ko di xool mbind mu rafet nga xam ne yaa ko bind su ma sonnee rek tëdd sëñ Tuubaa def hakka sa looloo la yeggale sa borom ma ne gannaaw loola ma ne yeggale waaye ci borom ak kat ñun ñi a nat na bi nanu fonk te xam ne li ñuy wut suñu digg ak suñu borom di ko wut suñu digg yenn saa salaam di ko wut suñu digg sëñ Tuubaa xasida yi mën nañu koo may benn barab jàng xasee def ko addiye sëñ Tuubaa amul lu ko gën a rëy ci kaw amul ndax yenn saa bëgg na sëñ Tuubaa bëgg xasaayit mi bëgg koo xam ne maanaam xasida gu sëñ tubaa bind ba yonent bi encaissé ko opéré day mel ni yonent bi musu koo encaissé day mel ni nit nit ñi suñu borom liggéeyee doomu aadama nga xam ne day soxla dox fi mu ne ku naanoon ci suba bu ñu la joxaatee ndox day mel ni mosoo naan da ngay naan baat pot bi jeex baa nga doyal noonu la xasida yi mel ci yenn façon léegi saa boo toogee benn barab jàng benn tux fatuma sadrin day mel ne bi saa sallam li ko suñu borom joxoon mu di ko fayee sëñ Tuubaa day mel ne dara jugu foon yonent bi day daw wuti loolu di la ko xëpp yokk moo tax saxat laat wax ne képp kuy jàng xasaay te waxtu yu ngi koy jàng ki ko bind ak ki tax ñu bind ko tax rek tax nga di ko jàng nee na foo noppee ci sëñ sunu borom teg la fa sëñ tubaa tolloon bu mu noppee ci xaside yi marta bu mu sëñ tubaa jëlee ci xaside yi ump na mi ndee aban maqami an tawbaahu karim la wax waaye sëñ tubaa soxlawul yooyu martaba weesu na ko bu yàgg dara jëf yi taxawloo wala tat tax bi tubaa day yëkkati taxaw ku yëkkati taxaw nag foo yem weesu nga ko foo ko bàyyoon boo ñëw du ko fekkaat yo foofee mu yemoon démb nag bu alsaan sëñ alsaan Diouf jàngee noor daawee rek ñu teg ko bu jàngee tey si ki bind xaside yi xamoo ki tax mu bind xaside yi mënoo xam ñu jàng xaside yi kon nan jàpp ci xaside yi te yaakaar xaside yi te fonk xaside yi te warmaal njabootu sëñ Tuubaa yi ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, Serigne euh, Alioune Diop euh, jërë ngeen jëf mbokk yi yaakaar naa ñoo ko déggandoo muy waxtaan boo xamante ni waxtaan bu am solo la kon daal xasaayid yaa ngi noonu làmb ay ngëneel ba fees dell kon bu ko defee rek ñu ñaanal ko baax a baax suñu borom subhanahu wa taala mu may ko fan wu gudd loolu ànd ak wér gu yaram li nga xamante ne moom la fas yéene liggéey ci Ahmad Bamba Xaadim Rasul ci wàllu xasaayid yi mu amee ko nu kawee njortam kon bu ko defee rek mbokk yi dañ leen di fàttali laaj yi moo di yaa rabbi soqali jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi ibni xaalibi loolu mooy laaj bu njëkk bi ñaareelu laaj bi moo di هدمت باطلا بحق فزهق ولي zahaq كف فقيه ذاق saqihi dahaq nit képp ko xamante ni rek xam nga ci yan xasida lañu nekk ci kanam dinañ leen ubbil buumu jokkoo bi ngeen mën jaar ci 88 628 19 25 88 628 19 25 nga xamanteni moy soxna jang ci sa jaalibatul marahib mo jaayante ñaari xasaay yooyu nga xamanteni mom lañu la aji tontu laaji muy xasida gi di wakaana haqqan alayna nasrul muminin ak xasida gi di jaalibatul maraaxib kon bu ko defee rek dañuy daldi di ànd ak Serigne Khadim cham ci xasida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 وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا وجهت وجهي لمن تكريمه بانا في شهر مولد من في البحر ربانا لله شكري في شهر ربيع ولا على ابتداء الذي اختار قربانا قد أقبل الخير ممن لا شريك له في الملك والحمد إسرانا وإعلانا دعوت بر الرهيم أن يهم كرمنا في البر والبحر نعم الله مولانا سوي بكل في ذا اليوم توسعة xata oxima li diinillahi arkaana ndeysaan jërëjëf sëñ Xaadim ma jël mbokk mu nekk ci ligne bi ba xam kan mooy njëkk a tontu laaj tey mi asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi lay ziar alhamdulilah tur beeg fa yootee sëñ Mor Nger sëñ Mor Ndiaye Touba amul Xura euh, mhm, maa ngi lay ziar mi ngi nekk euh, ñu ngi koy jégalu bu baax a baax Serigne Mor Ndiaye. don ñëwee ci diwan bu Touba Oumou Khoura ñu koy jéggul waat baax baax melni na doon na jéem tontu laaj jaaratal ci 88 628 19 25 88 628 19 25 laaj bu bi moo di rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaari laaj moo di hadamtu baatilan bi xaqin sa zahaq wali ilahi ka sa dahaq loolu may ñaari laaj bi ñu àndaat ak Serigne Khadim Thiam ci kanam ربيتني فذهب للعام يا سمدي إدمان خير وإسعادا وإسكانا ربيتني بعد إطعام وتربية من يوم تربية إذ جعت ستيانا مكنتني بعد ضيق شفت لي حللا موسيا بعدما قطعت نوريانا ناجيتك اليوم يا من أمس كرمني وسقط لليوم إيقانا وبرهانا جرجف سين خادم ني ديال مباك مو نيك سي لين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كو واه عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله سين عبد الله ما نجي زيار واه دي نيو بغا تام سي عبد الله بسم الله واه دي نيو كو مغنا سي البلد غال بلدو واه اها نيارل بي واه دي نيو مغنا سي وكان حق وكان حق ñu ngi koy ziar bu baax a baax Serigne Abdou Mbengue doon ñëwee ci diwaan bu Touba Ndindi di ngi koy ziar baax a baax ak lu ko xamante ni yaa ngi teewlu rajo Touba Fall FM foofee ca diwan bu Ndindi 88 la 628 19 25 88 628 19 25 laaj bu njëkk bi moo di yaa rabbi soxli jumlatal masaalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaareelu laaj moo di xadamtu baatilan bi saqin fa zahaq wali ilahi kaf sa saq yihi daax ñu fàkk dana képp koo xamante ni rek tontu nga laaj di nga am xasida gi di wakaana xaqan alina nasrul muminin ak xasida ak jaalibatul maraxib ci ndimbalul soxna jàng si say jaalibatul maraxib mbokk ñu àndaat rek seen xaadim càmb ci kanam نذري ورجلي من قد عزاها بكونك الوارد القهار منفردا يقهر عدام على بشراي إمانا نبهتني أمس تنبيا أرى عجبا أنت البديع الذي ما زال رحمانا يسرت لي أمس هب اليوم توسعة يا ما فرداه إنسانا آويتني بعدما ذاق الفؤاد أسم فسرمدا ليردن وإنسانا أسلمت وجهي إليك اليوم داخل من لمن غدوت له كعبا وحصانا ديسان جرجس خادم نجل بوكم ونكتلين بوكم السلام عليكم maaleykum salaam. sëñ bi alhamdulilah tur bi it fay wootee. maam Thierno Faye. sëñ maam Thierno Faye. nekk ci Wakana Hassane. Wakana Hassane. waaw. Mhm. jërëjëf sëñ maam Thierno. ñu ngi koy ziar bu baax a baax Serigne Mame Thierno Faye doon ñëwee ci diwaan bu Touba Aliou ñu ngi koy ziar baax a baax ak lu ko xamante ni yaa ngi teewlu rajo Touba Fall FM foo fekk diwaan bu Touba Aliou mbokki ñu àndaat ak Serigne Khadim Thiam ba ci kanam ci xasida gu wa xadd karam naa bani aadama ba fàttiwaat leen laaj rek laaj bu njëkk moo di yaa rabbi soxli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi ibni aalibi ak xadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilahi kër sa sax yi daxaq biir képp koo xamante ni xam nga ci yan xasida la ñu nekk ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 bitim réew 00 221 33 974 29 59 am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah taala si Modou Thiané. waaw maa ngi ziar sama sëriñ. Basiirou Loum Touba Aliou. Eh, sama sëriñ maa ngi ziar. <laughs> maa ngi ziar bu baax tey jégalu nag. naka ñu tey. maa ngi sant suñu Touba bu baax. alhamdulilah. waaw man naa ñu barkeelu ci laaj yooyu. Mm-hmm, يا رب soxli googu day ku nekk min ci wal baladu wajjatu kulli lil wadudi samadi bu dee xadam ta baatinan nag moom ma nga ca wakkaan xaqan waaw ah, ñoo ngi sant yàlla bu baax tey ñaanal suñu kii di Muxtaar may ñaan yow suñu borom kattanal la te dëgëral la. allahumma amiin ñu bokk lépp. musal la ci ndog yeeg yëpp. waaw allahumma amiin suñu bés ñun moom sunu fag la. ndax dañoo yaroo doo. Mm-hmm. ñu ay tuut tànk ba léegi. dëgg la dëgg la dëgg la. Ah, eh, sunu fag ñoom ñoo ngi lay ñaanal nga yokk lool dugg fan. allahumma amiin allahumma amiin. waaw loolu ngay def dafay mel ne ñun nga mat ñun nga ko defal wóor na si wat ndeysaan ndeysaan xasida ñu ngi koy ziar baax a baax a baax Serigne Bassirou Loum Jaalibatul Maraaxib doon ñëwee ca diwaan bu Touba Aliou ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ak képp koo xamante ni yaa ngi teewlu rajo Touba Fall FM foofee ca diwaan bu Touba Aliou Serigne Bass nuyul ñu Serigne Ibrahima Dia bu baax a baax suñu Serigne la ca diwaan bu Touba Aliou mbokk yi 88 la 628 19 25 laaj bu njëkk bi moo di yaa rabbi soxli jumlatal mataalibi bilaa xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaareelu laaj moo di xadamtu baatilan bi xaqin sa xaq wali ilaahi ka sa saqiyihi daxaq kon ñu àndaat ak Serigne Ibrahima Serigne Khadim كان بتي ci kanam ci xasida دي وانا خد laqad دعا مدادي حدا حاجي لخدمة من تبشيروا ضرر الأعداء أمسانا محمد خير خلق الله سيدنا صلى عليه الذي أدعو تبيانا وجه صلاة بتسليم له أبدا ولي بيانا وعني كف شيانا حملتني ربي في التكريم دون علم في البر والبار فدرسا وسكلانا ملني العام يا وهب فوق رجاه والترد لي أعداء ومسلانا بجد رزق حلال طيب وكريم ما لفت ترداه إسرارا وإعلانا ناجيت برا رحيما مغنيا وله أمري أفوز أرجو نصر لنا أذكر سكوري واصفه لي هنا وغدا يا واسيا مغنيا ما زال ديانا هب لي بكونك وهابا معا حتى أكون بماء الغيب ريانا مكن ووسع ومفجعل بتوسعة كليلة القدر أحيانا فأحيانا فيك اجعل المصوى صنين بلا زلل وسم الأنبياء أعيانا فأعيانا يا يا الخير وعافني وزد جميل يا نافعا لم يزل برا ومنانا إليك قلبي وجسماني كذاك يدي يا هاديا لم يزل ربا وحنانا لي جد لقيا ذوي الإيمان في عجل حتى تبشر من قد كان حزنانا بكونك الخاهر الجبار رمت هنا ألا أنازع جبارا وسلطانا ورد للصلاة يا قهار في أبد والتهمني وفني مكرا وشيطانا رجوت أنك تحميني وتنصرني نصرا عزيزا بنيلي رضوانا وغيتني مكر أعضائي ومن مرهم فلتفني سرمدا حقدا وعطوانا وخيت بي مكر أعضائي وممهم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا وقيتني مكر أعضائي وممهم فلتكفني سرمدا حقدا وعدوانا لسان جير Serigne Khadim Thiam kon bu ko defee rek ñu daal di tàmbale suñu nuyoo Euh, di ko tàmbalee ci kull koo xamante ni rek yaa ngi yëngu fii ci rajo Touba Fall euh, FM di ko tàmbalee nag ci boroom kër gi di Serigne Cheikh Ndigal Fall ñu koy ziare bu baax a baax a baax te di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu may ko fan gudd loolu ànd ak wér gu yaram di ko ñaanal baax baax rajo bi yëg bi foofu foo xamante ni ñoo ngi koy dégg rajo ci biir àdduna bi mel nañ sax ñaan googu ñaan gu nangu la ndax fépp waaye nekk ci biir àdduna bi rek mën nga bi nga xamante ni moo di rajo Touba Fall euh, FM 105 point 5 ci suñu internet bi su ngeen defee 3 double double samfal samfal point com wala ngeen télécharger sunu application bi nga xamante ne moo di Touba Fall rajo ci Google Play Store bi fépp soo xamante ne mën ngeen fépp soo leen nekk si biir àdduna bi rek mën ngeen a teewlu sunu rajo bi nga xamante ne moo di rajo Touba Fall FM ñu ngi koy ziar baax a baax si Cheikh Ndigal Fall waaye tamit di ko ñaanal baax a baax mu dem ba am télé boo xamante ne nii télé Touba Fall lay doon waaye ku ci mel ni Serigne Alioune Ndiaye suñu directeur général moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal seen borom subhanahu wa taala mu may ko fanu gudd loolu ànd ak wér gu yaram ku ci mel ni Serigne Zakaria Fall ci Touba Janat Mahwa moom tam ñu ngi koy ziar baax a baax suñu directeur programme sëriñ Mbacke Kébé ñu ngi koy ziar baax a baax DJ événement borom lay rafet moom tam ñu ngi koy ziar baax a baax oustaz Abou Boussa imam Yaali moom tam ñu ngi koy ziar baax a baax sëriñ Maxtaan Ndiaye borom bagage yi sëriñ Moussa Diop ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax a baax soxna Ndeye Yacine nekk fii ci diwaan bu Touba Fall ñu ngi koy ziaré bu baax a baax ak lu ko xamante ni rek yaa ngi yëngu fii ci rajo Touba Fall FM ku ci mel ni sëriñ Moustapha Cissé suñu xarit ñu ngi koy ziar baax a baax ak sëriñ Moustapha Fall mu ci commercial bi ñu ngi koy ziar baax a baax mbokki 88 la 628 19 25 laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi suq li jumlatal mataalibi bila xisaabin bina ibni xaalibi ñaari laaj moo di xadamtu baatilan bi xaqin fa zahab wali ilaahi kasta saqiyihi da xas ngir képp koo xamante ni xam nga ci yan xasida la ñu nekk ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 88 628 19 25 di leen fàttali ni képp koo xamante ni tontu nga laaj rek tey soxna jàng fii sa jaalibatul maraaxib moo jaayante xasida wa kaana xaqan alayna nasrul mu'minin ak xasida jaalibatul maraaxib ngir nga xamante ni tontu ñaari laaj yooyu kon ñu àndaat ak sëriñ Xaadim Caam ba ci kanam ixfir dunubi اغفر ذنوبي وابل اليوم مقلبتي بكن ورم به لي سرمدا شانا لي الفراق الذي لم ترده خلقا ولتمحو عني يا غفار ما شانا بحرمة المصطفى من جئت خارجه إيه، بالذي والنذر سجعل ثم ميزانا هدي بقلبي تقبل واكفني خطأ والزم شيئي وكملني بما زانا ربي وانتكم من ما نويت لدى طوبى التي بك تبنى فيك بنيانا وجهت وجهي يوم الصبت مرتديا إلى الذي سرمدا حالكم كانا رب كريم حفيظ واسع صمد وابتغي منه تيسيرا وإسكانا ديسان جير جسرين خادم نجل بكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi koy tuub bu baax a baax 88 le 628 19 25 88 628 19 25 Serigne Cheikh Ndigal Ngom le grand technicien ñu ngi koy ziar bu baax a baax ak Serigne Massayer Gueye Baye Fall moom tamit le grand technicien la fii ci rajo Touba Fall FM ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax mbokk yi 88 le 628 19 25 88 628 19 25 ma fàttali leen yéen a ngi ànd ak seen mbokkum taalibe Modou Thiaré ci seen émission ahlu xasida ضم إلى أعمال أهل بدر خطي باق لي جل قدري nee na tamit jëfam jii di xasidaam yii muy tagg sallallahu taala wa sallam ak julli ci moom sunu borom boole na ko ci jëfi ahlu badar ya ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëriñ xaadim naar ibnu sëriñ mbàkke soxna la ñu ngi koy ziar baax a baax te di ko ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu may ko fanu gudd loolu ànd ak wér gu yaram bopp ñu àndaat ak sëriñ xaadim ci am ba ci kanam. فتحا وفيدا ورد الدهر فجانا قدير غار يا جبار يا غربي وابن الذي ياخذ الاموال مجانا ناديتك اليوم يا برا علي له شكر يخجل يا خوطا ومرجانا انت العلي العظيم العدل يا املي أنت العليم الحليم البر رحمانا هب لي بعقدي الأسماء صهري من أمسى يكابد أهل الحق أزمانا منك التمس الذي أعطيته الصلحاء حتى بي قهر الأعداء إدمانا ملكني اليوم يا وهاب مطلبتي والتكني كيد من للحرص قد مانا ناجيتك اليوم ذا فقر إليك فكن لي مغنيا لي اليوم بيبانا افتح لي اليوم بالمختار سيدنا أواب خير من تجر رزق إبانا ليكن بجود وإسعاد ومرحمة وبالبشارات يا من فضله بانا طيب حياتي بلا موت ولا ضرر واجعل بفضلك مثيرا بقربانا يسر جميع الذي ارجو واطلبه حتى اكون خبيرا عني جفلانا يا رب قبل في الدارين كل منن wal takini abadan makaran wa xizlaana ndeysaan jërëjëf suñu xaadim ñu jël mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum waaw sëñ bi sëriñ Baye Ndiaye Baye Fall ana waa Gossas village ñu ngi ziar alhamdulilah ndeysaan jërëjëf sëñ Baye allahuma amin allahuma amin yow la ñuy déggee saa su nekk. ndeysaan ndeysaan jërë ngeen jëf. mais loolu saa su nekk émission bi jotee ñun ñëpp ñu ngi lay déglu wax dëgg la kàddu gi yëpp di la ci yow. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. yàlla jàppale bu a baax. amiin amiin amiin amiin amiin. amiin amiin ana mbokki taalibe yëpp. ñoom ñëpp ñu ngi a alhamdulilah alhamdulilah. dëgg la dëgg la kay Ndiaye. jërëjëf Ndiaye ci ñun rek nga bu baax a baax a baax. ndeysaan jërëjëf waay. jërëjëf yàlla na sëñ Tuba loolu jàpp bu baax. allahumma amin allahumma amin allahumma amin. man boobu ñoom nekk ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di jaare bu baax. ndeysaan mm, mm, jërëjëf waay. jërëjëf. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax jërëjëf. jërëjëf ñu ngi ñu waa daara ji bu baax a baax a baax. incha allah jërëjëf waay. ñu ngi koy ziare bu baax a baax Serigne Mbaye Ndiaye la a baax a baax a baax di ziare ñi nga xamante ne ñoo nekk ca biir daara jooju ku ci mel ni ñoom diir koor a a baax ak waa kër gi ñoom ñëpp ñu ngi leen di a baax ñoom Serigne Omar Ngom soxna Astou Ba baax a baax ak kullu koo xamante ni yaa a baax laaj njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaari laaj moo di hadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilahi kasta saqihi daxaq ngir képp koo xamante ni xam nga ci yan xasida la ji nekk ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 88 628 19 25 mbokk ñu àndaat ak Serigne Khadim Thiam ba ci kanam. bayyan li alxaqa kashfan laa yufaariqun كما كشفت لأهل الله تبيانا اسر قلوب العادي أن أضايا من لنصرته وعدبي شيبا وفتيانا تركت أمشي الذي قد يطه ومضى قد احرب الدل وعني كف خزيانا ndeysaan jërëjëf Serigne Khadim kon bu ko defee rek ñu daal di dellusiwaat ba diwaanu fii ji Touba Fall di ziar Euh, kullu koo xamante ni yaa ngi ci biir kër Serigne Cheikh euh, Ndigal Fall euh, ku ci mel ni soxna yaa ngi koy ziare bu baax a baax te di ko ñaanal suñu borom ko fànn gudd loolu ànd ak wér-gu-yaram ku moom tam ñu ngi koy ziare bu baax a baax soxna Souda Gueye soxna koy ziare baax a baax soxna Kana Fall soxna Anta Beye ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare baax a baax soxna Ma Asou Thiam soxna Thiara Mbodj ak kullu koo xamante ni rek yaa ngi teewlu rajo Touba Fall FM fii ci diwaan bu Touba Fall ñu ngi leen di ziare baax a baax mbokk yi kon bu ko defee rek dañuy daal di fekk Serigne Ibrahima Gueye moom tamit euh, ci xasida gi di Mafatihul Bisri di ci ziar baax baax tamit ku lu koo xamante nii da ngay dulus xasida euh, Bisri di ci ziar baax baax sëriñ Abou Mbacke Bisri ak sëriñ maam sëriñ Jeng ci diwaan bu Touba Janatul Mahwa euh, moom tam ak Bisriya ak la moom tam ñu ko ci ziar baax baax mbokk kon ñu ànd ak sëriñ Ibrahima Gueye وجاب الآل والمال لم يكن أتاكا وسل يا تواب والمسلم هل الذي له فالأرض قلمي ذكر وجهك الكريم أحمدا والآل وسبي وأمر أحمدا وكن لي الأمان والفلاح إلى البلاد والفلاح وسل يا هادي سعد النبرين وسلم خير سلام لاهر على نبي ورسول فائر محمد خير يا رايه وعلي وصحبه وسلم बदला जली बदाम सलीब हरि बमंदा बदाम من للبابي والإيس سكني والعاشق الواجب ومتني اللهم يا عليم يا حكيم سلي وسلي وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم بملك بقي العسى على الكريم وبجاهك العسى على وسلم من أمام

بالأرض ولا في سمائه في بقوة العيش على الكريم ألا تجعل من النئام علي في الحال ولا في المآل أهل يا رب العالمين وأن تجعلني من عبادك صالحين إليك ndeysaan jërëjëf sëriñ Xaadim Caam mbokk moomu xol bi tooy na waaye nag noonu la mën a demee ndax sëriñ Tuubaa si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul dafa ne xaajat xasaayidi xuluba ahli badrin wa saari wa xaajat xasaayidi xuluba ahli badrin wa saariu li hifzi ahli xasida yi dañu yëngal xoli waa ahli badr mu mel ni am na mbokk mu nekk ci ligne bi salaamaaleykum sëñ bi maa ngi lay ziar alhamdulilah tur beeg fay wote sëñ Modou alhamdulilah tur bi ah sëñ Modou Cissé ah sëñ ah, Modou Tine ah waaw ñu ngi ziar bu alhamdulilah na ngeen def ñu ngi koy ziare bu baax a baax Serigne Modou Tine ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax a baax 88 le 628 19 25 88 628 19 25 kon ñu ànd ak Serigne Ibrahima Gueye ba léegi rek ci xasida gi di Mafatihul Bichri mel na ni mbokk taal bi nga xamante ne ñoo nekkoon ci jotaay bi ñenn si ñoom xol yi tooy nañu ba ñu ngi koy wane mais nag noonu la mu dana mel ndax ci Ahmad Bamba Xaadimu Rasul dafa wax ne xaajat xasaa'idi quluuba ahli badrin wa saari'u li hisbi ahli nga xam ne xasida yi dañuy yëngal xoli waa ahlu badar kon nag loo xamante ne day yëngal xoli waa ahlu badar euh, waxtu waxatuma laa nag xoli taalibe yi kon nag yaakaar naa loolu day wane màggaay xasaay bi daa ta ciy lu am solo la boo xamante ne ni a mokkal xasaay di kon a a a a euh, loolu yaakaar naa day loo xamante lu am solo ba tax ñu war cee gën a góorgóorluwaat bu baax a baax kon mbokk ñu àndaat ak Sëriñ euh, Ibrahima اجي بس كلام من العلام والمكروب وزبر موصل من الخبير الذي لا يقرأ عليهم شيء ولا في التمام وأسألك في قوة العيش على الكريم ألا تجعل سيدا لاهل علي في الحال ولا في المرأة خشبيرك آمين يا رب العالمين جلالي من أبيك فقال بين إليك أبدا وأنت جلالي من أبيك فالحين إليك أبدا وأتجل كل فرد لجنبها إسائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأتمني بسلب سيدنا الأجل سلبا ngeen bàyyi kaw gerte gi si bu mu defal sa kër yi ak yow ñu si dig yàlla na ci laaj ak moom ci seen jàng yi moom am ko noonu daal bi xëcc yi dañ koy yàq ci biir rek ma ñu dañ koy yàq rek ñu di yàq rek suñ koy yàq rek du ko yàq wax na ni bu dee ñanal

ndeysaan euh, jërëjëf sëriñ Ibrahima Gueye ci njàng mu neex mi ñu ngi koy ziar baax baax te di ko ci ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mu may ko fanu gudd loolu ànd ak wér gi bu ba fële ci diwaan bu mel ni sëriñ Mouhamed Gueye moom tamit jàngalekatu alquran la ci biir daara ja ñu ngi koy ziar bu baax baax waaye ku ci mel ni sëriñ euh, Ibrahima Darame borom téléphone yi moom tam ñu ngi koy ziar bu baax baax baax baax te euh, ziar baax baax tamit Serigne Makhtar Diouf borom daara ji ñu ngi koy ziar baax a baax bépp taalib boo xamante ni yaa ngi ci biir daara ji ku ci mel ni Serigne Saliou Sané Serigne Fallou Badje Serigne Ismaïla Sané Serigne Poti ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax a baax Souleymane Sané ku ko xamante ni yaa ngi ci biir daara ji rek ñu ngi lay ziar baax a baax mbokk yi 88 la 628 19 25 laaj bu njëkk bi moo di yaa rabbi suqul yi jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi ibni xaalibi ñaareelu laaj bi moo di hadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilaahi kasta saqiyihi dahaq ngir képp koo xamante ni li xam nga ci yan xasida la ñu nekk ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 wala bitim réew 0221 33 974 29 59 ma fàttali leen rek ne yéen a ngi ànd ak seen bokkum taal bi moo di caari ci seen émission ahlu xasida sëriñ bi dafa wax ni xasida dana yëggale murid buy tarbiya wu ci sunu borom xasida yuusilu murid tarbiya li fi jalaali wa murid tarbiya ñu ngi koy ziar baax a baax euh, sëriñ Basiru Xelkom di ko ñaanal fan gudd loolu ànd ak wér gu yaram mel ne am na mbokk mu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum. maa ngi ziar. waaw sëñ bi. alhamdulilah tur bi koy wote. Euh, sama sëriñ allahumma amin allahumma amin ah, amin amin waay ah, jërëjëf waay jërëjëf taw feex euh, ñu ngi koy ziar baax baax di ko jaajëfal Serigne Modou Bousso Thiam doon yooyu ci diwaan bu Touba Ndamatou ñu ngi koy ziar baax a baax Serigne Modou Thiam bu groupe waxtaan yi xasida yi képp rek donc ñu ngi koy ziar baax a baax a baax mel na am na mbokk mu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum wa bismillah allo mel na ni déggante bi les routes 88 le 628 19 25 laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaareelu laaj moo di xadamtu baatilan bi xaqan fa zahaq wali ilaahika saqihi dahaq dina sàtt dañ tey soxna jaan si tee moo jaayante ñaari xasaayit yooyu nga xamante ne moo di jaalibatul maraaxib ak wakaana xaqan alayna nasrul muminin waaye tamit di sant bu baax a baax ci nga xamante ne mooy sëriñ Mourtala Fall nga xamante ne doon na ci ànd ak ñun semaine yële passé ñu ngi koy ziar baax a baax sëriñ Mourtala Fall ci diwaan bu Touba Assalem mbokk 88 la 628 19 ñu àndaat ak Serigne Ibrahima Gueye ba ci kanam. على الذي في جلوت ظلما ودعنا بحال والمالين وزودني عن كل ما لم تقري لي ونفني عليه وذوي وبل يا وجود والمسلمين على الذي لو ترك قلمي غير العهد جنته وقلت لي في منى زندته وصحبه إلى محمد والآل وبالبي بالحال والمآل والتربية العظيم عمري وكذاك بكل أمري وسلم على دعوة سلمي على نبي آدمي العالمين سيدنا محمد والآل وسلم بالحال والمآل بلا درر لمن وكني بالعدال ودرر بدل يعقب وتسلما على الذي العلماء سيدنا محمد والآل وسلامه بالحال والمال وأبني الإمة صحيحة تكوني يا من تكون من لم تكوني jërëjëf euh, Serigne euh, Ibrahima Gueye njàng mi neex na loolu ñu ngi ko ci ziaraat baax baax baax baax kon bu ko defee rek euh, dañuy wéyal euh, ziar bi da fekk sunu mbokk taal bi nga xamante ni moom la ma suñu borom subhanahu wa taala boole ñuy ànd di liggéeyal Serigne Touba ci Ahmad Bamba Khadimu Rasul ci wàllu xasaay di muy daayira boobu nga xamante moom la ñu créé woon ci Facebook bi di daayira bu groupe waxtaane xasida yi képp rek donc ñu ciy ziar baax a baax kullu koo xamante rek euh, jamono ji yaa ngi ñuy teewlu ku ku ci mel ni Serigne Modou ñu ngi moom tamit mu ngi foofee ci diwaan bu Touba Janatul Mahwa koy a baax ku ci mel ni oustaz Saliou a baax euh, Serigne a euh, baax a baax moom Serigne Modou Baax moom tam suñu jiwrin la ku ci mel ni Serigne a baax ci diwaan ak euh, nga xam te ne moo di Serigne Ahmed Sarr moom tam mu ngi foofee ci diwaan bu Touba Moussoobe ku ci mel tam ñu ngi foofee ci diwaan bu sëriñ Xaadim Ndaw moom tam nga fa diwaan bu Touba Ndamaatu ak lu ko xamante ni rek bokk nga ci daayira boobu jamono ji nga ñuy teewlu ku ci mel ni sëriñ Naar ci diwaan bu Touba Xahira sëriñ Sanfay ñoom ñëpp ñu leen di ziare bu baax a baax a baax a baax mbokk yi 88 la 628 19 25 88 628 19 25 laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi soxli jumlatal laaj moo di baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilahi kasta sax yi dahaq laata nañu àndaat ak euh, Serigne Ibrahima Guèye rek ma fàttali leen yéen a ngi ànd ak seen bokkum taalibe moo di ci seen émission ahlu xasida soxla bi ni mu ko defoon tok ci Issa jenn nek ci watam am ko romb Serigne Touba jàll Serigne bi yoni ci Issa nak ko mako ci ko jenn daw na ko kaay ku tedd ki li mu ci Serigne Touba serigne bi ne ko Issa nekku na dela ci yitteel daan na ko Issa xanaa li ma def jaxal na la ko amu na ko jëmm dafa defu aduna defu alakhir te defu ma ko te xaw ko defar waaye bi mu wut see maaru jéem ji moo ma xamal ne xasida ko defar kon ndake nurun wa majidun wa rafaatun wa jalba mun a daari ni ndax mal ñu koy ziar baax baax Serigne Gana Mesra ci leral yu am solo yooyu nga xamantene andi nako ko jéem a ko ci xasida ci Ahmad Bamba khadim Rasul kon mbokk ñu àndaat ak sëriñ euh, Ibrahima Gueye ba ci kanam da ci ziar baax baax ku ci mel ni sëriñ Ismaïla Ngom ci diwaan bu Touba Darou Minane ñu ngi koy ziar baax baax baax ci Ibrahima Gueye bi رجل عن قبل أكل تقدا من دعا ما يطلق بيقلدا بلا عدد ولا جمد ولا دلل ولا تجدد وقد في كرم والبليانات هو المسلمات ألا نبي من أدار ولما سيدنا محمد والآل وذبي بخال والمآل وجل مكاتب مناقم له يا من على شيء لا جعل له يا من مجد قرآن بيقر لقد نويتها وزن الكبر وسليها وجود ومسلم على الذي جل إليه قلمي سيدنا محمد المدني والنبي الآل والمدني آتيا قوات الهدى والرزق كما يزور الجدى والتقيا الذي والمسلما على الذي ما أذى وظلما سيدنا محمد المدني والنبي الآل والمدني والتقيا عني سرمدا والتقيا الحسن بن أحمدا وآتي وسبي ودوري على في بني غير يومي والتقيا يا ليت أني أبدا أنا أنتي ولد غير أمدا وآلي وصحبي وعزمي من الأذى ومن الأكرمين وسل أن يارثه بسلام أنا الذي كفر من الكلام سيدنا محمد وسلم والذي بالآل والمآل والآن في السرين وتقني الآل والنارين وسل عاصب عني بالسلام على نبي مجتبى المنام سيدنا محمد وسلم والذي بالآل والمآل والآن داود يبلغ كل حين أهلكتني أبي فتالحين أسمعت أني أبدا الذي إيه دون إيه بلا إجنا محمد والدين وأدري بحال والمدين قائد الجميع أبيب المؤمنين والمسلمين وأبيب المسلمين وسل يا علم عني في أبدي وسلم على مزادين زبدي إجنا محمد والدين وأدري بحال والمدين وبيا قد ما سقي سلاحي وفي بلا إزالة فلاحي أمر بها تحاوج من يومي وجه مكاني الإيمان بالمال مثل يا الذي jërëjëf Serigne Ibrahima Gueye ci njàng mu am solo bi kon bokki bu ko defee rek dañuy daal di ànd teewlu maanaam xasida yi fan lay mujjee ak ki nga xamante ne ni eh, jaam bi nga xamante ne ni moo am xasida donte sax eh, yéggul ci di ko jàng waaye am na xasida yi rek weccee ko ko teg ko ci barab bu sell fan la xasida gi di mujjee moom sëriñ bi radiallahu anhu nee na bis taalibe yi ku ne na ma andil xasida gam yor ko bu kenn andi xasida gu moomul ba ñu ñëwee mu ne leen dama leen a bëgg a wax sa xasida yi di mujj ak yéen maa di ne ku faatu ci yéen bañ koy waajal mboolem xasida gu mu amoon di ko fonk wala mu mokkal ko ci dënnam day soppeeku jëmm ju rafet mel na mbokkam buñ demee ba yoor ko ci bàmmeelam ñu nekk fa ak moom di ko wéttali di ko leeral ba mu dekki kon la la am solo kon xasida yi kon ki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 mbaa gum mokkal la wax mbaa gum amoon te daa ko fonk li ñu ngi déglu seen émission animation xasida ak Serigne Modou Thiaré kon ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax Serigne Mamour Mbacke xam sa dina ci leeral yu am solo yooyu kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo képp koo xamante ni yàlla dogal na mën a jàng xasaayit fexeel bu am xasida rek teg ko ci barab bu sell comme ni ko Serigne Mamour Mbacke xam sa diine waxee ñu ko ci ziare baax a baax kon bu ko defee rek dañuy daal di seeti Serigne Abdoul Khadir Diagne moom tamit ci xasida gi nga xamante ni moo di bidaayatul xid waaye tamit ci ziar baax a baax a baax koo xamante ne nii euh, da ngay euh, xidma بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم هذه بداية الخدمة بالصلاة على النبي رحمة بسم الله الرحمن الرحيم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 لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك بينه بين يديك مصليا على وسيلته إليك فعيلا بالتوفيق وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لربي بلا تناهي مصليا على رسول الله حمدا لربي بلا تناهي مصليا على رسول الله يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا بلال وصاب وهب لي سهليا بجاهه ولي بتهليا يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته بأحمدا بلال وصاب وليغفر ذنبي وتر عيوبي وتقبل كربي واجعل نظامي لديك حسنة عبادة مرضية مستحسنة بجاهي وفي الشواغر إلى إقامته فيما رضيت لي ولا ونجني من كل ما يعوق عن نيل ما يرضي وما يفوق وهب لي الكتاب والحديث وكفني البدعه والقبيث وجني اليوم وبعد اليوم وسعده ومجني من لومي يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي رجوته لي منجدا وسيلتي إليك في الدارين محمد سيد كل عين وآله وسعده واغفر لي واغفر لوالدي واقبل مغنيا نيسان جيرجيف سيرن ابراهيم سيرن Abdul الخادر جان ñing koy jaar baax baax ci njang mo neex mo am solo bi eh, kon bu ko defee dañuy daal di jàll ba fële ci diwaan bu Touba Ali di jaar baax baax suñu mbokk taalibe nga xamantene ñoo nekk fee ca daari sëriñ alxaaji siñaan ah, ba eh, ku ci mel sëriñ Bàkke siñaan ñu koy jaar baax baax sëriñ daara la ci biir daara ja ci mel tam koy jaar la ci ja ci mel suñu Baye Baye tam koy ziare bu baax a baax a baax a a baax ku la koo euh, ba fële ca euh, daara yi Serigne Khalil Mbacke moom Cheikh a baax te di ko ñaanal mu euh, ci mel ni Serigne Modou Cissé Serigne Dar la ci biir daara ji ñu ngi koy ziare bu baax a baax ak suñu boutique bi Serigne Sall ñu ngi ziar bu baax a baax Serigne Abdou ak ku koo xamante ni yaa nga fa fee ca biir daara ji ku ci mel ni Serigne Bassirou Serigne Bassirou Cissé Serigne Issa Mbaye ak suñu Boy Ndiaye moomu ñu koy ziar baax a baax Boy Ndiaye moom tam am ñu koy ziar baax a baax ku la ko xamante ni yaa ngi fa fecce biir daara ji waaye tamit di ziar baax a baax sunu yaay yu baax yi nga xamante ne ñoo dëkk fa fecce koñ ba ku ci mel ni soxna mère Seck soxna mère Seck ñu ngi koy ziar baax a baax ak soxna may mère Sey moom tamit ñu ngi koy ziar baax a baax soxna Fatou Mbengue ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax mbokk yi 88 la 628 19 25 88 628 19 25 laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila hisaabin بنب بن غالب نار من حدمت باتلا بحق فزهق ولي إلهي كهف فقيه ذهب بكثة هم تنمي خم غيتي ينفسي ذا لن يميكري جن من جارتي 428 928 1925 428 1925 بسم ريو دوغل 0228 33 964 29 33 double zéro deux cent vingt et un 33 974 29 59 kon ba tey rek ma fàttali leen ne yéen a ngi ànd ak seen bokkum taalibe Modou Thiaré ci seen émission ahlu xasida abahaka rabbiya rasulallahi bi xattiyal muxzi muxzi aduwallahi yàlla reeloo na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi dafa boo bindee rasulallahi day ree ngeen neex boo ko sama sama sama sama mbind neex ndeysaan ñu ngi koy ziarat bu baax a baax a baax sëriñ Mamour Mbacke xam sa diina mbokk ñu àndaat rek sëriñ Abdoul Khadir Diagne ba ci kanam waqbal salati wa jamiha nusuki bi jaayihi wajal hudaka maslaki wa sun bihi nazmiya an jumlati ma lam tarduhu liya wa sughli ni'ama wa najjini min intifa'in bi haram wal tahmini an kulli mujibin malam wal taqdi naqda uhudi وقني الشك والنفاق طول زمني يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي به أكون زقدا سيدنا محمد بالآل وسعده إرحالي وفي لي العلم وكسر أدبي ولي في الدارين جد بمغلبي وسقني جملة ما أخشاء به وفق لي كل ما أهواء يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه في سرمده مع سلامك ذا النظام وزيعة مصونة إلى القيام وجلوا لي شهادة تشهد لي بأنني لك وللمزمل وجلوا في الدارين لي بشارة وذا تمام يجلب العنار وهب لي الظفر بالقبول وبالرضا به وبالمعمول وهب لي العلو في الدارين وهي معصمه من العالم عليه وفيهما كل الولي ونفيه بأمة المشفه الهادي البشير وزد صلاتك عليه بالسلام بآله وصحبه على دوام وجلبه نظمية الدارين بغاية العارين والنارين وجل خدمة زكية خالصة مشكورة مرضية وجلو يا رب بجاه المصطفى لي سعادة وخيرا وشفاء وجلو واجعل ولي إنك كنزا يقطع واجعل عروة لديك وسطا لشب اني اليوم ازور دائي عنك وعن عبدك الزلوائي عليه صل ثم صل يا كريم وليهد به قواب لا عليه سلم ثم سلم يا جواد وليهدي علوا ذا عليه سلم ثم سلم يا عظيم وليهد بجاهه مجدا يضوم عليه سلم ثم سلم يا بديع والتقني به جميع ما يرى عليه سلم ثم سلم يا قريب وكن به لي السميع والمجيب عليه سلم ثم سلم يا مجيب بآله وصحبه ومن ينيب عليه صل ثم سلم أبدا عليه واجعلني به مؤيدا عليه صل ثم سلم أبدا عليه واكفني الأذى والأودا عليه صل ثم سلم أبدا عليه بالآل ومن به هدى وهب لي استقامة ونجني من ابتداع باتباع السنن عليه صل ثم سلم أبدا وهب لي العصمة العافية من كل رداء عليه صل ثم سلم كل حين ونجني الدهر به من اللعين عليه صل ثم سلم أبدا عليه وجعلني به مسودا عليه صل ثم سلم أبدا عليه بالآل ومن به اقتضى وجل جميع امور لله ولرسوله بلا شرعه واقبل صلاته والصيام به وليها كوني من اقربه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا كان آه، جرجس آه، سيرنا آه، ابراهيم سيرنا عبد الخالق جان نكاي زيار بو باخ باخ باخ باخ جان مي نيخنا لا كون بوكو ديفي ريك داني دادي ويال زيار بي دم با سي سونو مبوك سونو يوغا خامتاني نيوم تاميت لا نيو يالا سون بروم subhanahu wa taala boo leen ñu ànd di liggéeyal Serigne Touba ci wàllu xasaay di muy daayira bu groupe waxtaanee xasida yi képp rek dong ba ci facebook bi ku ci mel ni soxna jaara sekk jëwri ñu ngi koy ziar baax a baax ci diwaan bu gaaraasu daaru waaye ci ki mel ni ay daja ñu ngi koy ñu ngi koy ziar baax a baax ci diwaan bu Touba jannatul eh, mahwa ci mel ni soxna ay dajuuf moom tamit eh, ñu ngi koy ziar baax baax ci diwaan bu gaaraasu daaru ak ku ci mel ni soxna jaara eh, ku ci mel ni soxna Bousso Bali moom tam ñu ngi koy ziar baax a baax ci diwaan bu Touba xaayira soxna Fatou Diop moom tam ñu ngi ziar baax a baax ci diwaan bu Touba Sarr loolu mën nañ ko ci mel ni soxna Fatou Gueye moom tam ñu ngi koy ziar bu baax baax ci diwaan bu Touba Soura di di baax baax suñu bàyyi ju baax jooju nekk sa kër ga di Serigne Mamoun Bousso ñu ngi koy ziar bu baax baax ak kullu koo xamante ni jamono ji yaa ngi teewlu émission ahlu xasida soxna Awa moom tam ñu ngi koy ziar baax baax ñoo ñëpp ñu ngi ci daayira boobu nga xamante moo di daayira bu groupe waxtaane xasida yi képp rek donc mbokk la 19 25 laaj bu njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi ibni xaalibin ñaareelu laaj bi moo di hadamtu baatalam bi xaqan fa ba wali ilahi ka fa faqihi dah adam di ziar baax a baax baax soxna Diagne si fee Diagne batul maraax bok ci kurel bi ba léegi ñu koy ziar baax a baax di ko beral ab ziar diko jotali suñu diko jotali ñu nuyu Serigne ma Massahir Gueye grand technicien fi ci radio tuba tal FM soxna jaan ci fee ñu ngi lay ziar baax a baax moom moo jaarante ñaari xafida yoy nga xamante ne moo di wakaan xaqan walina nasrul muminin ak xafida gi di Diagne batul maraax bok yi laat nañu àndaat ak Serigne abdul Khadir jaan rek ñu ànd daal di déglu leen rek ci ngëneelu xasida gi nga xamante ni moo di xasida Nuuru Daarayni. xoolal xasida gi di Nuuru lu sëñ bi wax nee na sama muqaddama bii nga xam ne moom mooy Nuuru Daarayni na ko def xasida gi waaye lépp arab su xasida gi rek na ko def bu nekk ay mbégte yoo xam ne day leeral yëpp koo a ne ñu ngi koy jàng te yëpp ko may bayre na ko may aw tur may am xol bu laab dana ubbeeku na nga def xarit xasida yii muy bëj ji jëmee ci xéewal yi gën a mag wàccaal a sax nga xam ne xasida bu doy am na ko ma xam xam turam xam santam dafa génn ba kilifa bu faam mu ne ko ndax am na sëñ mu ne waaye nag fii ci àdduna fii fii ci barsax gis naa daal képp ku fi am cër buy dee yéen a ngi déglu seen émission animation xasida ak Serigne Modou Thiaré ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax Serigne Bassirou Touré suñu Serigne nekk ci diwaan bu Touba Sam ñu ngi koy ziar baax a baax Serigne Aliou Seye moom tamit suñu Serigne la mu ngi ci diwaan bu Touba Jannatul Mahwa ñu ngi koy ziar baax a baax waaye tamit di di jaajëfal baax a baax a baax Serigne Bassirou Amar bu Walfadjri ci annonce bu mucc ayib bi ñu ngi koy ziar baax a baax a baax 88 le 628 19 25 88 628 19 25 laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bi ne xaalibi ñaareelu laaj bi moo di hëdamtu baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilahi kaf sa saqihi daxaq ngir képp koo xamante ni xam nga ci yan xasida la ñu nekk ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 88 628 19 25 bitim réew 00 221 33 974 29 59 ñu ànd ak sëñ Abdou Khadi Diagne ba ci kanam الرسول المعنى وتقني الجهل وبني فهما يا رب سب خير الصلاة بالسلام إلى الذي أغلبه بلا انقسام إلى الذي به أحال وعامل المنى دنيا وأخرى منك دبر ربنا سيدنا حبيبنا محمد بلال وصعب وصف قلبي سبب به أمري بالسلامة من كل جانب إلى الندامة ويا حياتي به مباركة وهمتي جعل فيك بابا باركة يا ربنا صل صلاة تصيب أني كل برعة لا تعرف مع سلام جانب لي الهدى وتقني كل بلاء وردى على النبي المصطفى محمد بآله وصحبه في أبدي يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي لست أزال خادما سيدنا محمد وسلم عليه بالآل وكل منتمي وهب لي اليوم بالتسالى والفوز بالرضوان والكمال يا ربنا صل صلاة نامية على الذي لست أزال راجيا سيدنا محمد وسلم بآله وصحبه وعظمه وهب لي اليوم بجاهي العظيم كوني عبدا ثم كوني خديم يا ربنا صل الصلاة الغالبة كل صلاة قبلها والجاربة لي سعادة على المغتار بآله وسعده الأبرار وسلما عليه وجه اليوم يوم لقائه وقل نومي يا ربنا صل صلاة تذهب بكل ما يسوءني وتغلب لي عداي كلهم وتحفظ قلبي وقالبي عما يفضوا على رسول الله ثم سلمي بلال وسعدي وشاني عظمي دنيا واخرى وطن الذي يضر بجاهه وصحبه لي ما يا ربنا صل صلاة ترقى بلا نهاية تحوذ ترقى مع السلام لا يزال أبدا على الذي منك به أرجو هدى سيدنا محمد بالآل وصحبه واقبل به سؤالي وليكن وكن معي والكفر عيبي به ومجني من غلي يا ربي اللهم صل بالسلام على رسول الله أرفع الأنام بآله وصحبه وافتح لي فرحا مبينا لم يكن بمثلي وهب لي الذكاء والبراعة في جملة الفنون بعد التعاء وهب لي الشروع في التاليف ميسرا لي وفي التصنيف وجل جميع ما كسبت نورا واسرع به الحقول والصدور وتقني وسوسة تلقى الناس وتقني سوء كلام الناس وجل توالي في بالمختار جنة كل قارئ النار وزده يا رب صلاة بسلام بآله وصحبه على دوام يا ربي اللهم صل سرمدا على حبيبك ومن به مبتدا وهبلية التعليم واجعل علمي في النفس والكفة كالقدم يا jërëjëf Serigne نعم، سيرين عبد Diagne جان 628 19 25 88 628 19 25 mooy bu mu jokkoo bi laaj bu njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaareelu laaj moo di hadamtu baatilan bi xaqin fa zaxaq wali ilaahi ka fa saqiyihi daxaq loolu mooy ñaareelu laaj bi bu ko defee ñu daal di dellu ba fële ci diwaan bu Touba Sam di fa fekk suñu sëriñ sëriñ Ousmane Cissé jàngalekatu alquran la ci diwaan bu Touba Sam ñu ngi koy ziare bu baax baax di ko ñaanal yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu may ko fan wu gudd loolu ànd ak wér gu yaram ak lu ko xamante ni jang foofee ca biir daara ja ku ci melni serigne sëriñ serigne alhaji Alxaaji mu ndaw ñu ngi leen di ziar bax bax ak suñu yaay yu bax yi nga xamantene ne ñoo nekk foofee ku ci melni soxna awata ñu ngi koy ziar bu bax bax soxna Njéeme ak ki nga xamantene ne moo di soxna Gas ciongan ñom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu bax bax soxna aram siñaan ku lu ko xamantene yaa ngi teewlu radio tuba fa lefem rek ñu ngi leen ziar bu bax bax bax ku mbokk bu ko defé rek dañuy daal di ànd teewlu leen ci ngeenelu xasida gi nga xamantene ne moo di xasida minal lawhil mahfuz ni ci ànd ak sëriñ Mamour Mbacke xam sa diine sëñ wax ne minal lawaxil mahfuuz ku ko mokkal mooy doon sa tontu ci munkar ak nakir booba sëñ Mbad Lamine Diop dagana dafa wax ne man maa toog di xalaat sama diggante sama borom di xalaat faatu di xalaat bàmmeel bay xalaat ne bis ndugg ci bàmmeel ba munkar ak nakir ñëw di laaj ana lan mooy doon sama tontu nee na may xalaat ci loolu rek am ku agsi ne yéen ñii na ci am ku ñëw wuy si sëriñ nee na ka féete bu ndabat dal di faxe mbuy ji fekk boobu mi ngi taw taw yeb yebal ñu àggee sëñ bi jox ko xas dëgg mu toog sëpp mu ne ko demal ne fere yi lii mooy seen tontu ci ñaari malaaka yi muy xas dëgg minal lawaxil mahfuuz bi kon ku ne war na koo mokkal xasida yi rek du seen émission animation xasida ak Serigne Modou Thiaré ñu ngi koy ziare waat bu baax a baax a baax Serigne Mamor Mbacke xam sa di nekkoon mbokk yi 88 le 628 19 25 88 628 19 25 ñu àndaat ak Serigne Abdoul Khadir Diagne ci kanam رب صل أفضل الصلاة على النبي صاحب الآيات سيدنا محمد وأهلياء به هنا وفي غد نيتيا وسلم عليه تسليما يسوق إلي في الدارين مع ظني يهو من الخيول وقفني مخالفة بجاي وهب لي المساعدفة يا ربنا صل صلاة ترغل علي فرحة جوايا تنقل على رسول الله عبد الله حبيبه البر بن عبد الله سيدنا محمد وسلم وآله وصعبه وعظمه وزقني به النفاق والشكور وكل ما يجوز وانشرني إلى افوق يا ربنا صل صلاة تجلب إلي في الدارين خيرا أطلب مع سلام دافع عن الأذى دنيا وأخرى ويضيء المنفذ على حبيبك الذي لست أصير إلا به إليك يا نعم النذير سيدنا محمد وصلي وآله وصحبه وكرمه وجل بيوتي وبنائي كله سعادة الدارين واجمع شمله وحل به بيني وبين الفاسقين وضمني الى الخيار الصالحين يا ربنا صل صلاة دافعة عني كل ما يسوء مانعا من كل ما يضر في دنياي والدين والبرزخ مع أخرايا مع السلام قد يحصر وطني عن كل ما تغلقه من فتني على رسول المصطفى محمد وآله وصحبه في أبدي يا ربي اللهم صل سرمدا وسلم على الشفيع أحمدا به نوالا لا يكون لغير من لازمه في كل حين وزقني بجاهي ابتداعا وليه بجاهه اتباعا والرمى يا ربي به دنيايا وبرزقي ولتصلحا أخرايا يا الله صلي ثم سلم سرمدا على الذي سميته محمدا وهو الذي قدمته من ذنبي وليكن في كل شيء ربي لك عبادة علي يا خبير للحب والشكر بخدمة البشير شغلي ما ينفعني بلا ضرر بالمصطفى ونجني من الخطر وصليا عليه بالتسليم وتتولى سرمدا تعليم يا ربنا صل صلاة أسنى من غيرها على رئيس الأسنى jërëjëf sëriñ Abdoul Khadir Diagne kon bu ko defee rek dañuy daal di jàll ba fële ci diwaan bu rajo Benno FM 105 point 106 point 0 di ziar baax a baax a baax kullu ngay yëngoo foofee ci diwaan bu Benno FM di jël suñu nuyu ak suñu ziar di ko teg ci loxoy sëriñ Mor Talla Fall mu joxal ñu ko mboolem koo xamante rek yaa ngi yëngoo foofee ci bu Benno FM di ziar baax a baax suñu jiwrin sëriñ Kab Mbaye ñu ngi koy ziare baax baax a baax soxna Ndeye Amy Gueye wakaana saqan moom tam ñu ngi koy ziare baax a baax soxna Thiaba Ndoye soxna Dio soxna tam ñu ngi koy ziare baax a baax soxna Koumba Lo ngi leen di ziare baax a baax ak suñu technicien yi ñu ngi koy ziare baax a baax ci diwaan bu Touba Darou Salaam ku ci baax a baax Serigne Mamour Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax a baax mbokk yi 88 le 628 19 25 88 laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaareelu laaj moo di hadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilaahi kahfa saqiyihi dahaq ngir képp koo xamante ni xam nga ci yan xasiida lañu nekk rek ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 ma fàttali ne yéen a ngi ànd ak seen mbokkum taalibe Modou Thiaré ci seen émission ahlu xasida xasida yi nekk loo xamante ni comme niñ koy faral di waxee saas nag rek Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul mi ngi wax ne habliya kaw na xalime yan xalimin lawxika yaaman li saadati damin di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ngir waxtu woo xamante ni mi ngi bind xasaayid yi mu mën di toxalee ca lawxul maxfuus loolu yaakaar naa di wane màggaayu xasaayid yi mel na ne am na mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum maaleykum salaam incha allah. waaw maa ngi ziar. alhamdulilah. alhamdulilah. tur beeg koy wootee. Moustapha Touba Darou. Serigne Moustapha Fall. Touba Darou. alhamdulilah. man waa Touba di wa boo yegg ku mu wër di sàmmati. waaw xam mm-hmm. bi. waaw ah, boobu de laa jàppale yàlla. Mm-hmm. ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëriñ Moustapha Fall doon ñëwee ci diwaan bu Touba Darou Minane ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax ku ci mel ni sëriñ Mor Diop Touba Foto mi ngi ci diwaan bu Darou Minane ñu ngi koy ziar bu baax a baax soxna Penda Cissé mi ngi ci diwaan bu Touba Darou Minane ñu ngi koy ziar bu baax a baax soxna Marine Ndiaye euh, soxna Jojo Diop ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax euh, ku ci mel ni soxna euh, Mame Boussa Diop moom tam ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax ak kullu koo xamante ni yaa ngi teewlu rajo Touba Fall FM ba fee ci diwaan bu Touba Darou ñu ne nu ma ko waxee woon ci ginnaaw rek Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul wax ne ijal xol wax ne habli habli yakaw na xale mi yan xale mi ndax yaa man li saadati tamit di ñaan yàlla foofu suñu borom subhanahu wa taala ngir waxtu woo xamante ni mu ngi bind xasaa ij rek mu mën di toxalee ca lawhul mahfuz ba mu ko ñaanee yàlla tamit suñu borom subhanahu wa taala daal di ko koy may ci la waxaate ne aktubu naaxilan min allawhi lxafiz maanaa ya ridwaan al ali wala fi di xam ne ni waxtu woo xamante ni mu ngi bind xasaa ij rek mu ngi koy toxalee ca lawhul mahfuz mu mel ni may may gi yàlla suñu borom subhanahu wa taala dañu dem ba mu gën ko koo yaatalal sax may ko mu mën di toxalee ci xalima ba nga xamante ne yëgseegul ca lawhul mahfuz moo tax Sëriñ Tuubaa dellu waxaat ne aktubu naqilan min allawhi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin loolu yaakaar naa day wane màggaayu xasaay ji bu ko defee ñu daal di seeti Sëriñ Balla Fall yi moom tamit ci xasida gi nga xamante ne moo di xasida gi jaalibatul maraaxib ñu ànd ci ak Sëriñ Balla Fall yi waaye tamit di ci ziyaar bu baax a baax ku la koo xamante ni rek da ngay dërës xasida gi jaalibatul maraaxib di ziyaar di ci ziyaar baax a baax sëriñ Hamzatu Mbàkke moom sëriñ Sonia bu Mbàkke di ko ziar baax a baax di ko ñaanal yaa rabbi wasaxuri dan libni Humayril Hamza wali raisi sohadaai Hamza waaye tamit di ko ñaanal baax a baax mboolem njabootu sëriñ Sonia bu Mbàkke gi yëpp ku ci mel ni sëriñ Abdou Samad ñu ngi koy ziar baax a baax sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Sonia bi ci diwaan bu Touba Jannatu Mahwa ñu ngi koy ziar baax a baax sëriñ Mourtala Sonia bu sëriñ Mourtala moom sëriñ Sonia bu Mbàkke ci diwaan bu Madiana ñu ngi koy ziar baax a baax soxna Ami Sala moom sëriñ Sonia bu Mbàkke ci diwaan bu Touba Jannatu Mahwa ñu ngi koy ziar baax a baax soxna ma am Fati bu soo kazalika soxna Nafisatu Sylla ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax a baax soxna moom mi ñu nekk diwaan bu Touba jannatul mahwa bokk ñu ànd ak Serigne Balla Fall ci xasida ak jaalibatul maraaxib 88 la 628 19 25 mooy bu mu jokkoo bi jaalibatul maraaxibi fi aajilin kahaajilin bi raaxibi bismillahi rahmaani rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام في هذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة بسم الله الرحمن الرحيم أول ما ابتدأ به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 آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجلي تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانصح بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعانه على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله وهو أحمد قديم من سمعته محمد بسم الإله وهو رحمن وهو رحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مها شفيه مذهب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته وصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيعنا مقدم عند الذي تفتو لديه قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والهذا وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بتكرار هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر نويت من زلهام خدمة تسر مشفعا به كفيت معصر قد رمت من رب البرايا خدمة لمن بجايه كفاني صدمة أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وهناء وخرر أشكره شكرا يجر الزيدا بشر ولا يجر نحوي كيدا حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزهزها خرورا فقمت نازما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم مرتجيا كوني قديما أفنى وأن أفوز بالمقر الأفنى ملتمسا من مالك أن ينفها بها الذي يريد أن ينتفها جهل الله بجاي المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نزما مباركا يقي العذاب كما الذي كابدني عذابا أرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كهاجل لراغب خد شرفت للمراد قائلا مع شفاء بائسا أو قائلا إن الله وملائكته يسلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك سائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باخيا أبقيت سرمدا على بيسان جرجة سرين خادم تمتي سرين بلا فالي دنيا هوني لونك دفع هوني لونك خادم تمتي سرين بلا فالي ak di ci ziar baax a baax ku la koo xamante ni rek euh, da ngay durus xasida ak euh, jaalibatul marahim ni ma ko waxee ci ginnaaw di ci ziar baax a baax ku ci mel ni euh, Serigne Massamba Fall alquran Serigne Massamba Fall alquran suñu Serigne la ibnu Serigne Cheikh Ndigal Fall ñu ngi ko ciy ziare bu baax a baax te di ko ñaanal fan wu gudd loolu ànd ak wér gu yaram ku ci mel ni Serigne Khadim Diop borom taalif yi ñu ngi koy ziar baax a baax ci diwaan bu Touba Aslim ñu ngi koy ziar baax a baax ak Serigne Adama Diop ci diwaan bu Mbacke Bari moom tamit ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax mbokk ma fàttali leen ne yéen a ngi ànd ak seen mbokkum taalibe Modou Thiaré ci seen émission ahlu xasida mu ne hadamtu bil xabqi bila mawtin li naxa wa qad rafaatu sawti mu ne moom ci boppam si Ahmad Bamba mabb na tabaxub dee dee mi nga xam ne képp kuy dund dana la jublu nee na moom du ko jublu te nee nag baatam ci kàddoom ca kaw ñeme na ci bu baax a baax comme ni mu ko waxee kafaani al ma mamaata sarmada wa baqa baqaa isur ahmada mook suñu borom nag ñoo xam na muy doone ñu ngi ko ci ziarat bu baax a baax Serigne Khadim Mbacke ibn Serigne Mouhamadou Mbacke soxna lu ñu ngi koy ziar baax a baax a baax moom tam ñu ngi amal liggéey bu am solo ci wàllu xasaay ndax am na daara bu am solo boo xamante ni daara yi tout tànk yi la ko tuddee nga xamante ne ay ndaw la ci tàggat yoo xamante ne da leen di tàggat ñuy répété ay xasaay di ko kuréel di ci def lu am solo nga xamante ni amaloon na ci liggéey bu am solo màggal kaas bi nga xamante ne moom la ñu wees sax xale yooyu nga xamante ne ñoom la ñu doon tàggat ñu ngi doon amal jongante xasaay final bu am solo boo xamante ni wax dëgg yàlla keroog moo leen koo xam xamante ni teew si woon nga ca bés ba rek euh, sa xol tooy na ngir xale yi tout temps nga xamante ni ñoom la ñu tout temps yi nga xamante ni moom la ñu doon ñoom ñëpp daanaka kenn kenn weesuwu si fukki at nga xamante ni moom la ñuy jàng xasaay di neex loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy ziar bu baax a baax te a baax te a baax euh, Serigne euh, Khadim a baax ku ci Omar Lo wax moom na ci ñi nga xamante ni ñoo féete ci wàllu daara boobu nga xamante ni moo di daara yi tout temps yi ñu ngi ko ci ziar bu baax a baax a baax 88 628 19 25 88 628 19 25 laata ñuy ànd ak euh, Serigne Balla Fall ci maraax bi rek dañuy daal di ànd mbokk yi ñu joxe ab secret boo xamante ni euh, bii nag euh, secret la boo xamante ni ci xasida gi di matlab si faay la kon yéen ñi nga xam ne yéen yor téléphone yi mën a enregistré na ngeen ko enregistré bu baax baax ndax dafa nekk secret boo xam ne secret bu am solo la ñu ciy ànd ak Serigne Moustapha Mbacke. xam na ni matlab si faay ba bopp di akche binti padwo, akche men, jib binti, sifte han, an lopo yon, ak bozak lakon, lakon sirene ba, minkan yon, man lopo shikare, ba ak titi, man lopo yon, bakit ya baon, ya lakon kiwa na api, ya mendo an lo a lanshara, lanshari yon man sata, lojne yon, lanshari kiwi moun yon, akde lakon sirene, sifte kwa shikare, moun wari manat an, lakon moun manat an, nit bu nekkoon dans le bu animation xasida ak Serigne Modou Thiaré kon ci ziar bu baax a baax tamit euh, ku koo xamante ni da ngay durus xasida mat la euh, ba mu ko waxee lu am solo di yaa barro yaa latiifu yaa maxafiis képp koo xamante ni da nga am jàngoro bëgg koo saafara da ngay tàmbale xasida gi comme ni ma ko waxee booy jàng bay si ci yaa barro yaa latiifu yaa maxafiis yaa man lahu amrul wara yaa saafi yaa saafi gi moom ngay baamu lu mot téeméer yoon yeggale xasida gi tufli ko ci ndox daal di koy xiwlu yaakaar naa loolu dafa nekk loo xamante ni lu am solo la kon ñu ngi ko ci ziare bu baax baax baax moom Serigne euh, Moustapha euh, Mbacke mbokk yi kon ñu àndaat ak euh, Serigne Balla Fall ba ci kanam 88 19 25 mooy bu ma jokkoo bi laaj bi njëkk bi moo di yaa rabbi soxli jumlatal mataalib bila xisaabin bi nabi bni xaali bi ñaari laaj moo di hadamtu baatilan bi xaqin sa zahaq wala ilaahi ka sa saxihi daxaq ngir képp koo xamante ni xam nga ci yan xasida la ñu nekk ngeen mën a jaar ci 88 628 19 25 tey nag soxna Diagne si sa jàllibatul maraaxib bu groupe waxtaane xasida yi képp rek dong moo jaayante ñaari xasaayit yooyu nga xamante ne moo di wa nasrul muminin ak jàllibatul maraaxib jagleel ko aji tontu laaj kon nak euh, gaaw leen gaaw ci 88 128 ñu ànd وسلم يا كريم عني عليه أروم صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي صل عليه في جميع الشهب مع سلام ولتوجه لهدي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصيمهم من زلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله صل أبدا وسلما على نبي سبه قد علما سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل يا من به استعاذ خير الأنبياء من اللهين الخب سر الأخبياء صل بتسليم على النبي والآل لوسهب وسن مخفي يا من من الناس ما حزمت خير الورى وسأنه حزمت صل وسلم سرمدا عليه في آله ومنتمي إليه وصل يا رحمن بتسليمي على الذي بعث ذا تعليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا آمرا خير الورى بالعزبلة كما عظمته بها والحزبلة صل عليه ولتسلم كل حين بلال وسهد مهن وصالحين وصل يا رهيم بالسلام على الذي تفره أقلامي سيدنا محمد والآل وسهب يا من جاد بالمآل يا خير منزل وقابح البلاء وخير منزل حباب أصمل صل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطاني ونور ورى القلوب كالأوطان وفيه باركت وفي سحابة وآله ومطر السحابة وانصر علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعزبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل دلاءنا لعزب ماتها ولتغننا بك مها المختار لنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف تحوزي ما يستعاذ منه يا محرزي ولتكفنا بعينه كل لهن وكل ما لم تفضه لي يا معين ولتكفنا بوابه كل أود ولتغننا عن جالبات لخود ولتكفنا بالزال كل الزول وحن أرامي أخنا بحلي. إيسان أيني يعني أم أم سلوعي؟ ولتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نهواه وببقية الحروف هب لنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهب لنا بحق الباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الهارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في الحال والآتي وخرها الحادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا حما وهب لنا إلانة بالألف غير عصيانك ونور مع الذي وهب لنا إلا من لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بألف المخفي نيل المقامات الحلى بالطي فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسابحا واستجب سوالي بحرمة العزبلة المنيعة صل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم ولا لوصحبه وكل مسلم والتهمني عن التهاو الذات يا واحدا في وصفه والذات ليسان والتهمني عن التهاو الذات يا واحدا في وصفه والذات نمكي زيار بباخ باخ باخ كتي مني آه، سيرين بسير اللوم ديوان بوتو با اليو نمكي تي زيار بباخ باخ باخ باخ آه، من نني امنا مبوكو مو نيكي بريك مبوك آه، مي السلام عليكم ورحمة الله ما يلي زيار سيندي ما يلي سنتي على الباخ alhamdulilah tur bi naka la koy wootee. Sëriñ Thierno. Sëriñ Thierno Sarr foo alhamdulilah an waa Touba. yal na yàlla nangu ziar Sëriñ Thierno. Mhm. waaw allah ñu ngi seen ginnaaw. <laughs> alhamdulilah. sant yàlla bu baax a yaa ngi teewlu émission bi. waaw maa ngi teewlu si ndam léegi. ndeysaan ndeysaan. alhamdulilah noo ko gisee. ah jërëjëf Bada Ndiaye. émission laaj yi ah. waaw. yaa rabbi suq lii jumlatal mataalibi bila xisaabin bina bidna xaalibi. ñaareelu laaj bi nag sa demtu baatilan bi xaqin fa zahaq wali ilaahi kës sa saqiyihi dahaq. ملكت ربي مالك التي هل له كعما وليتي وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين waaw. waaw maa ngi sant. ñu ngi sant bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw sant naa yéen a faraay. waaw incha allah yéen itam bu leen ñu fàtte bu baax. ay fan yu génn. jërëjëf suñu Thierno. jërëjëf. jërëjëf. ñu ngi koy ziare bu baax a baax euh, Serigne na Sarr doon yooyu ci diwaan bu Touba ñu ngi koy ziare bu baax a baax ak ku ñu xamante ni rek yaa ngi teewlu rajo Touba Fall FM foofii di diwaan bu Touba ku ci mel ni Serigne Fallou Diakhaté ñu ngi koy ziare bu baax a baax ci diwaan bu Touba Jannatul Mahwa euh, ak suñu papa Serigne Moustapha Diakhaté ñu ngi koy ziare bu baax a baax euh, soxna wàllu kan moom tam ñu ngi koy ziare bu baax a baax. Serigne Cheikhouna Diakhaté ñu nga ko fekk di wàngu Touba Jannatul Mahwa mbokk yi ñu daal di li ñuy def rek moo di ginnaaw euh, ci ginnaaw doon nañ teewlu xas dëgg Mafatihul Bichri àndoon ko ak Serigne Ibrahima Gueye ci njàng mu neex mu am solo kon li ñu def rek dañuy daal di teewlu lenn ci ngëneelu xasida gi nga xamante ni moo di euh, xasida dëgg Mafatihul Bichri Mafatihul Bichri nee nañu boo xëyee jàng ko koo jox loxo ko ko wax la mel ne moo defat

ñu ngi koy ziare bu baax a baax sëriñ Mamor Mbacke xam sa diine ak sëriñ Aline Diop bi nga xamante ne moom lañ àndaloon waxtaan bi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax a baax a baax 88 la 628 19 25 88 628 19 25 dañuy daal di dellu ba fële ci diwaan bu Touba Jannat Mahwa di ko ziar baax a baax. Euh, Serigne euh, Bàcci Ndiaye ñu ngi koy baax a baax ku ci mel ni euh, Serigne Modou Mbaye moom tamit Serigne Modou Mbaye ñu ngi koy ziar baax baax ak Serigne Nara Ndiaye moom tamit ñu ngi koy ziar baax baax moom ko fee ci diwaan bu Touba Jannatul Mahwa ku ci mel ni Serigne Cheikhouna Dieng moom tamit ñu ngi koy ziar baax a baax ak Serigne Mor Dieng Jalibatul Marahib ñu ngi leen di ziar baax a baax ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi ci kuréel bii di daayira ba groupe waxtaan yi xasida yi képp rek dong moo ko moom rëcc na maa ngi koy jégalu baax a baax 88 la 628 19 25 88 628 19 25 di ziar bu baax a baax a baax suñu mbokk yi nga xamante ne euh, mel na am na mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi Thiel ba. maa ngi ziar bu baax yàlla yàlla na ko. alhamdulilah maa ngi ziar nan sori. alhamdulilah tur beeg sooy wote. Moustapha Fall maa waroon sànq léegi. Mhm, sëñ Moustapha Fall. waaw dana laaj kii laaj bi mu gën ko leeral. نعم. يا يا بموجب ما هدمت باطلا بحق فذهق ولي إلهك فتخيه ذهق بنيك بمودي آه، يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بنبي بن غالب يا رب سق لي جملة المطالب بلا حساب بلا حساب قال مين يسمى مالكي وجاء سق لي جملة المطالب قال مين يسمى مالكي وكان هذا خلنا نقول مالكي جرجة فرس waaw ah, jërëjëf. jërëjëf. ñu ngi rafetlu émission bu baax la wax dëgg yàlla li ñu wax dëgg yàlla baax na ci ñoom trop. ndeysaan jërëjëf waay. yàlla dafa nekk ay jaakoo fekk leen dëgg la trop wax dëgg yàlla. dëgg la dëgg la dëgg la kay. waaw alhamdulilah. ñun bu nu noppee nelaw wala nu noppee lekk wala nu noppee nekk ci liggéey bi noo ngi war a dawal ci xasida bu nu bëggee nekk nit ñu sax nit ñu baax nit ñu sell xasida day tax ku am cër nga jox ko da lay defal te képp kuy jàng xasida di ko durus di ko dundal di ko sellal ma ne nit mënu laa xool nit mënu laa liggéey ba jàpp la sëñ Tuubaa nee na yemu ci balance yay diisal ëllëg yow man xiyaam xasida yaa neen ko rën bu yàlla dee rek na xasida yee tax moo ko di yëttal ak xisab kon loolu lu ñuy jàngale mooy tegtal ne Cheikhul Khadim fàggul na noonu lu ñu war a mën a góorgóorlu te mooy xasida yi ñu ngi koy jaajëfal baax a baax sëñ Gana Mesre waaye mel na ni am na mbokk mu nekk ci ligne bi kon ñu daal di àndaat ak moom rek mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi sant yàlla bu baax. sëñ Abdou Khadir Diop Daaru Salaam. sëñ Abdou Khadir Diop ana waa Daaru Salaam. ñu ngi jaamu rek. alhamdulilah. يا رب سق لجملة المطال إبراهيم سابي بالنبي من قلبي والبلد الطيب لديك والبلد الطيب خدمت بادرا بهاق فزهق ولي إلهي كسر تقيه دهق Eh, allahuma yaa quddus xasida Tuuba Daaru Salaam mhm. waaw jërëjëf jërëjëf ñu ngi dégg bu baax ci émission bi nag jërëjëf waay waaw jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy ziar baax a baax Serigne Abdoul Khadir Diop doon ñëwee ci diwaan bu Touba ñu ngi koy ziar baax a baax dañuy ba fële ci diwaan bu Gossas di ziar bu baax a baax a baax ku ci mel ni Serigne Ibrahima Thiaré suñu mag la ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ku ci mel ni Serigne Assane Thiaré moom tamit suñu rakk la ñu ngi koy ziar bu baax a baax Serigne Ibou Diagne moom tamit ñu ngi koy ziar baax a baax Serigne Amet Thiaré ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ku ci mel ni Serigne Mor Ngom ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ñoom Serigne Babou Diop Serigne Mbargane Sarr ñoom ñu ngi leen leen di ziare bu baax baax mel ni am na mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi koy jégalu bu baax baax 88 le 628 19 25 laaj bu nekk moo di yaa rabbi suqli jumlatal mataalibi bila xisaabin bi nabi bni xaalibi ñaareelu laaj moo di xadamtu baati doon bi xaqin sa sax wala ilahi ka sax yi da xaq mbokk mi salaamaaleykum Abdou Atim Abdou Atim maa ngi ziar. waaw numéro ba dama ko ñàkk nag soxlawaat naa ko lool. waaw euh, léegi nag su fekkee yéen a sori na moom it teewaat naa ko lool. Mm-hmm. xanaa ci ndaje Mballa xam naa da nga ko gëj a dégg. waaw xam naa ko gëj a dégg kay maa ngi koy toog bu baax a baax de. waaw maa ñàkk. léegi incha allah. Mm-hmm, ñoo koy jégalu baax a baax a baax sëriñ Abdoul Hakim Fall doon laajte numéro bi kon ko defee rek mën nga ko jël. Euh, mën nga def 76 919 00 90 29 loolu mooy numéro

ci ren bi 78 389 62 72 78 389 62 72 képp koo xamante ni tamit euh, bëgg ngaa bokk ci daayira boobu nga xamante ni moo di daayira bu groupe waxtaane xasida yi képp rek donc di euh, daayira buy liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul ci wàllu xasaay bi boo ñëwee ci numéro yooyu insha allahu rabi dina la wax li nga xamante ni moom la ñuy doxee di daayira bu groupe waxtaane xasida yi képp rek donc muy euh, wala 78 389 62 72 389 62 72 ñun li nga xamante ne ni moom lañ cërali woon ci wàllu waxtu sax yegg si nañ ci cappaandaw li ñu jël lu toll ci benn auditeur wala ñaari auditeur rek daal di yëkkati jotaay bi mi salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum maa ngi lay ziar. alhamdulilah tur bi. Alioune. suñu Alioune. ñu ngi ziar bu wér. yàlla na yàlla na nga ziar suñu Alioune fay wootee. man Touba laa wootee. ana waa Touba. ñëpp a ngi si man. alhamdulilah. tabaarakalla ñu ngi ziar bu wér si émission bi. yal na yàlla nangu ziar. di ñaan si diwaan defal la xéwal. allahumma ndax da nga nekk baax daal. jërëjëf yaa baax rek. jamono bi ñu nekk diisoo. Mhm. dañoo a toog di saw sa émission ngay def ay émission xel jokkoon nii. Mhm. booba xëy na de dana tegoon booba mooy fi ñu ci jaañ moom noonu am maraate bu. Cheikh Abdou Khadir Diagne waaw. Cheikh Abdou Khadir Diagne. Mhm. dañoo duggoon lool ba ñu duggoon fekk ci la nga jox ñu son yu bari yaa bari bari. ndeysaan ndeysaan booba baam ba léegi dañ ko fàttewul. dëgg la dëgg la. gisee bi nag laa bëggoon maanaam foo xam ni fa lay gën a yombee béréb bu mu gënoon a yombee. Mhm. bu ma ko mënoon am daal dara dara baax lool. gisee gisee bi. Mhm. incha allah. waaw maanaam comme béréb boo xam ne moom fu ñu moom dinaa mën a dinaa a fexe ba xam. fu may jaar fàttali ma tur bi. Aliou Mbow. si Aliou Mbow. waaw incha ñëw xam nga tableau hôpital bi. tableau hôpital garab. waaw. waaw boo ñëwee ba si bi ah. la boo ko laajtee foofu rek dinañ la ko woon incha allah. bi ah. numéro bi nag moom dama nga manqué woon lool. incha allah waaw boo nga koo jël 66. waaw. 900. 900. 900. 90. 90. 29. 29. jërëjëf waay. jërëjëf question ki nga doon laajte sànq moom boobu gan la woon dama am. Mhm. bi ma doon laajte léegi. Uh-huh. yaa uh-huh. bi. bilaa xisaabin bi na bit ne xaali bi. waaw yaa rabbi soxla jëm la kan mataali bi uh-huh. bilaa xisaabin dina lib xaali bi uh-huh. Uh-huh. boobu loolu mooy laaj njëkk bi ah bu njëkk bi uh, boobu nag moom dama kaa teewlu wut waaye mi ngi xel waaye dama ko teewlu waaw waaw ñaari laaj bi mooy def xadamtu baatilan bi xaqin sa sa xaq uh, boobu moom bu mu juum mi ngi si wakaanam waaw beneen bi maa ngi koy jégalu ñu ngi ci xel ñu waaye daanaka dafiy njëriñ. dëgg la dëgg la dëgg la kay. jërëjëf jërëjëf daal ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax euh, moom sax moom mu ngi doon suñu dernier auditeur ñu ngi koy ziar baax a baax a baax dugg bi am na solo. ñu koy ziar baax a baax kon nag mbokk yi kon mel na ni laaj yi nag euh, daanaka mbokk taalibe yu bëri tontu nañu ko. waaye tamit uh, ki nga xamante ne moo ko njëkk a tontu moo di uh, Serigne Abdoulahi Mbengue doon ñu woowee ci diwaan bu Ndindi kon Serigne Abdoulahi Mbengue moo njëkk a tontu laaj yi kon Serigne Abdoulahi Mbengue uh, mën nga jël nga xamante ne moom lañ joxe woon ci ginnaaw rek bi jeexee soo ñu si woowee wala nga def na si siñ dinañ la woo daal di lay xamal ni ngay def ba jot ci ñaari xafeet yooyu nga xamante ne moo di wakaana xaqan alayna nasrul muminin ak jaalibatul maraaxib Serigne Abdoulahi Mbengue dëkk ci diwaan bu Ndindi les quatre le numéros 76 990 29. wala 78 389 62 72 ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax baax di sant bu baax a baax mboolem koo ni doon nga teewlu émission ahlu xasida di jaajëfal bu baax baax ñi nga xamante ñoo woote woon ak ñi nga xamante ni ñoo doon woote waaye suñu borom subhanahu wa taala dogal yéeg si wuñu ñoo leen di jaajëfal bu baax baax ñi nga xamante ñoo toogoon seen kër te doon teewlu woote wuñu waaye wute wuñ ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax baax te di leen xamal ne émission ahlu xasida incha allah rabi saa su ne faral di demee di leen gëstul ay borom xam-xam yoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu xasaay yi ngir ñuy leeral mbindum si Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul waaye ñu ngi jaajëfal bu baax a baax a baax euh, soxna Diagne Cissé Jaalibatul Maraaxib mi nga xamante ni moo jaayante woon ñaari xasaay yooyu nga xamante ne moo di wa kaana haqqan alaynaa nasrul mu'minin ak euh, xasida gii di euh, xasida gii di وكان حقنا علينا نصر المؤمنين اقصد جدي جالبة الملاحق سوحنا جانجي سنين كي جاجف الباخ باخ باخ بزيار باخ باخ مولم كو خمال تنيرك جاك نا وقت كن بقي نجن تي يوني اللي نكو يالي سن بولم سبحانه وتعالى دفن تم دبب لني جنال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خسبي ركسي خسبي ركسي بدو خسبي بدو خسبي برانيو خسبي ركسي خسبي ركسي من جاب خسبي جاب خسبي رول خسبي رول خسبي جم كمون رول